Dia la première chaîne 100 digitale digital du Sénégal mbokk ñu avons une émission la quotidienne Amad dañ mbégte bu baax di janoog yéen une émission bi nga chaque jour rek dañ fi waxtaanee lépp lu gën a actualité nationale mais si de chaque jour ak suma ay chroniqueur tey ñu war a def euh, revue de la revue de l'actualité, actualité démb ak tey gis ngeen dëkk bi Alors, moi aussi na tension alors Momo Cissé doomu Pikine nuyu la xamante moom mooy taalibe Cheikh Paldi maa ngi koy ziar bu baax a baax di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ngi ñuy seetaan di nuyu suñu techniciens yi di nuyu euh, aram ci nga xamante ni moom moo nekk ci technique bi di jaayee fu ñëpp Paldi Alaaji Fàllu maa ngi lay nuyu di am mbégte bu rëy rëy rëy taseeg yow fii nii ah, ak suñu mbokk yi Mouhamed Rasoul Makhou Cissé di nuyu El Hadj Fallou Ndiaye ak euh, le général Pape Moussa Sow euh, di nuyu ñëpp euh, di beral nuyu nag ñi nga xamante ne ñoom ñuy seetaan surtout ñi nga xamante ne nag dañuy bokk ñun di interagir di wax ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa le général. général du May. général du May. <laughs> maa ngi lay nuyu El Hadj Fallou Xuba eh, di nuyu moom aussi seen doomu Pikine ginnaaw raay doomu Medina Yoro Fula borom vidéo yi maa koy nuyu di ko char di ko bëggee Paldi. <laughs> <laughs> borom xadratul jumaa bi di jaay muy gën fasaale rek la quotidienne ak Sénégal ak lépp jàmbi Sénégal alaaji Fallou Ndiaye gindi askan wi euh, sunu waa ji mi di borom Medina Gounass borom social bi Mouhamed Bachir Serigne Cheikh Sarr di ko nuyu bu baax di ko euh, di sàkku ci moom ñaan jàmm law ci Sénégal ak nga xamante ne ñu ngi ñuy euh, suivre ci internet bi lu Facebook comme YouTube di ko teg ci loxo narfal mu wasare ko ñëpp ak secret dévoilé bi di ko fa nëbbu gars yëpp ma ngi leen di nuyu di leen siyaar ñom Assane cham ñom bashir Ba gaay yëpp yi nekk ci euh, di connecté ci YouTube bi ak Facebook bi ma ngi leen di siyaar di nuyu sénégalais yi nekk ci réew mi ak ci bitim réew yëpp di wax assalamu alaykum wa rahmatullah on nous tue mais on ne nous déshonore pas. té fo nga genn quoi. ci yow sëñ Fall sëñ Fall genn askan wi nuyu na la. jërëjëf ma ngi leen di nuyu Momo Cissé euh Baldi pap Musa di nuyu mbokki internet yep di nuyu wasi Sine ak Touba Mbir naag bari jam xuma ak Banda. nuyu ma jaru nuyu na. ñoo ñoo ñoo ñoo non tey sama non Fall loolu secret. mooy askanu Fall secret de voix la secret de voix. alors comme ñu koy acte du jour lay acte du jour bon.

Euh, fi ñu waroon a jaar dafa am mm, chantier ba gis ngeen euh, attroupement yi nga xam ne jot na commencé am diggante waa kër Ousmane Sonko ak taway takk der yi dina ñëw tamit si situation bi nga xam ne Ousmane sonk tam mi ngi koy dund Pa Moussa defe naa ne euh, c'est la énième fois ñu ko fi débat débat woon nañ ko fi si élection législative tey débawaat nañ ko le préfet kii encore indiwaat yeneen ñaar yoo xam ne am nañu jàpp ne bokkul si li li li mu war a aaye mu manifestation bi naka nga koy jàngate waaw euh, Fallou avant d'en arriver à son interdiction euh, ñeen ñëw ci bi mu autorisé ba wow, démb démb waaw mm. fële ca euh, terrain ACAPES ci parcelle Asseni. fiefu Amadou Ba le premier ministre foofu la eewee askan wi dem def une excellente mobilisation boo xamante ne man kenn nettaliwu ma ko dama koo gisal sama bopp dem fa xool wër foofu noonu yëpp gis cette mobilisation de la jeunesse surtout ndax ñoo ci ëppoon mais da nga gis ay pas aussi di gis ay euh, donc euh, ñëpp ñëw ci mobilisation bu reuy def euh, meeting wax ku nekk wax bu paré ku nekk dem sa yoon voilà après que Ousmane Sonko di ñibi ci la quelques tirs de grenades lacrymogènes mais ce qui veut dire que ni à chaque fois qu'on autorise une manifestation euh, à chaque fois que nous respecter la constitution parce que la constitution bi wax bobu bal du tak du sagar du à chaque fois qu'il y a des problèmes rek a une interdiction donc interdiction donc finalement euh, li nga xamante de troubler l'ordre public loolu moom mooy la réalité parce que vous suñu fay gis manifestation vous nous autorisé encadré ko ko mu Les lépp lu fi dégénéré rek interdire alors donc kon kay les dañu war a parce que tey euh, la pratique euh, sur le plan administratif li muy wane à chaque fois que ni dañoo interdire c'est la lacrymogène yi di jugee la nit ñi di nekkee ci fitna Madame, euh, li nga xamante ne moom la servir comme alibi madame d'ailleurs, la nit ñi ni i c'est ni démocratique, ainsi de suite loolu bu interdiction autorisation à la gars buñ taxawé sax né ñom place de l'indépendance les manifester ku bëgg liggéey da nga leen di dem liggéey. yàqalul kenn liggéey mais bu bis buñ né interdit nañ rek fa la lacrymogène di taxé tàqe yi taal pneu yeeg lool yëpp fofu lay amé donc li euh, la matière administrative c'est une matière sociologique d'abord mais aussi nous mëna di tirer des enseignements ci li nga xamante ne moom am au jour le jour donc man gisaguma fuñu ñu autoriser euh, manifestation marche meeting ak dara mu jur alors que la constitution elle est claire euh, dañ informer ki nga euh, l'autorité administrative gannaaw nous informer mon ba euh, risque réel de trouble à l'ordre public les forces de défense et de sécurité yu encadrer ce risque là parce que risque risque ce risque là est réel mm parce que vous avez des forces de défense et de sécurité pour encadrer mais tey jii nii faire un petit tour sur Dakar tu verras que ni presque euh, euh, les les les hommes en tenue mieux les hommes en civil ci dëkk donc on n'est pas en sous nombre. Euh, par rapport à l'effectif de la gérer cette sécurité là. Mmh. nous, ci déficit parce qu'il n'y a pas d'éléments amul événement extérieur hors de Dakar parce que foofu bu ñuy faral di wax euh, insuffisance de forces de défense et de sécurité day fekk ci biir réew mi voilà qui aux alentours amna ay manifestations yo xam les forces de euh, sécurité mais il y a rien qui se passe dans ce pays là Les lo qui ne amoon comme risque faut que effectif bu doy bu mën encadrer risque boobu noonu euh, léegi y a pas de souci euh, cité nga ben fait bo xamante vous moom bokkul ci liñu ko jox comme prérogative pour mu annuler. ok mais quand même jël nako quoi manam les chantiers du BRT. jël na ko problème en toute illégalité parce que la loi elle est claire 72 18 c'est clair comme l'eau de roche maintenant interdire nous illégalement ok si interdire une manifestation les emporte dans le même sens euh, la, restriction de la liberté d'aller et de venir euh, barricade que Sonko s'il est en résidence surveillée qu'on nous le dise et que résidence surveillée c'est un juge qui le décide donc il n'y a pas une décision de justice qui a mis euh, Sonko sous sous sous résidence surveillée il est sous contrôle judiciaire ça tout le monde le sait c'est le juge qui l'a décidé comme ça il faut euh, Samba mais quand vous décidez que vous Ousmane Sonko du génn juge bonne justice ban procès donc donc que euh, a de décision vous avez quoi aucune base légale parce que si l'autorité judiciaire euh, policière peut-être japonais, qui qui bu il informe le procureur le procureur jël les dispositions soit de saisir le juge d'instruction wala de mener ses enquêtes euh, dem fofu wax ak mom xool li nek fofu nous après moom euh, mu jox le juge le juge jël décision de placer son Sonko sous résidence surveillée lolou mom moy euh, ki bi mais amul benn dara dara sous aucune base légale man nit tay do guen sa kër quoi lolou fu mu compromettre la liberté d'aller revenir euh bo ne ko doo marche. et c'est pas la c'est pas la première fois aussi. oui oui oui à chaque fois qu'il est convoqué ni lay def ci kër lolou pour la la léegi loolu dafa nek ci code pénal si vous bu ñu la convoqué léegi waratoo sa kër. Vous la convoqué dañu barricade que loolu fu fu fu mu et que ci loolu des vagues da tu as vu léegi ni ay journalistes ñu fekk leen fa ñu leen ay journalistes ci euh, ñenn Mala Touré de de de de News devant chez Sonko. oui oui oui à quelques de là-bas et puis bon voilà les gens disent que ni dañoo am ay renseignement yoo xamante journalistes yi xam journalistes journaliste de def ligue liggéey. Sénégal bi nga xamanté ne mi ngi nek fongale mi tok bëgg xam lan mo xew Dakar ki nga xamanté mi ngi Dakar te gënul kërëm ki nga xamanté mi ngi ci bureau ñoo ñëpp dañoo am droit à l'information. Mm. droit à l'information bobu lan mo leen ko mëna may c'est l'exercice euh, de de de d'activité journalistique mais journaliste yi nekk foofu noonu ñu sànni leen lacrymogène parce que fofu nonu gaay doon gis gi Marius Sagna Guy Marius Sagna leen gis parce que les députés am écharpe mm. mais journaliste yi lañ gazé fekk leen fi nga fa ak micro ak ñooñu direct quand même. mais ñoo fa nekkoon ñu ngi taxaw dañ fi mais loolu moom mooy pré éviter risque de trouble à l'ordre public finalement tu crées les troubles à l'ordre public ci sens donc actuellement, euh, actuellement régime bi de plus en plus parce que que la dictature était rampante maintenant elle est debout sous peu de temps euh, elle va prendre la fuite et que bu euh, bombe à fragmentation les fragments incendiaires auront dans tous les sens euh, actuellement on est à 11 mois des élections présidentielles c'est normal que l'atmosphère politique c'est normal que tension politique bi tollu parce que dañoo dem ci euh, élection yo xamante ne euh, xamuñu kuy candidat ak ku dul candidat dañuy dem élection yo xamante les points d'interrogation ñoo ëpp les points d'exclamation ou d'affirmation donc kon kenn xamul dara Sénégal dafa nekk croisée des chemins bo xamante danaka ñëpp euh, réew mi ci bopam ci neen la tok interrogation yi mom moo ëpp loolu nak le président Kéba Mbaye disait que buñu bu ci moment d'interrogation dara lérul ëlëk hmm nee na bu boba bu fi tegee dañuy réciter rek ñaari mots yo xamante ne daf ko dugal ci hymne national. ñukay réciter sans pour autant y prêter en grande attention mais dans ces moments d'interrogation et doute il ne faut non pas les chanter mais les réciter du fond du cœur et les obéir ces deux mots sont sénégalais de boobu foofu Sénégal toll. d'accord Momo dégg li Pape euh, wax alors mu jàppale d' du préfet bi comme argument pour tere yi fi mais aussi. Eh, ni ñu def eh, keur Ousmane Sonko à chaque fois ko bu ne wote na manifestation wala ñu mel ñu barricade këram ne ko do genn tay gis nañ sax eh, la comme ni ñu defoon la dernière fois doom muy yóbbu doom di jang ñu ne ko do ko mëna a alors est-ce que lool aussi tension yi ñi wax ne do rew mi daf koy am est-ce que du yoy mo koy indi que discours Ousmane Sonko ñu japp ne mo nekk di discours incendiaire bon euh man ci li nga xamanteni mom moy mooy euh, Euh, autorisation ou non ci prétexte yi nga xamante ni moom la préfet bi jël peut-être ci sori peut-être Pape Moussa moom moom euh, juriste la xam na yoon mais ci xel rek ci xel damaa jàpp ne euh, préfet bi maanaam yell na ci moom mu ne kat comme que chantier fii ñu bëgg a jaar nii te chantier la te liggéey bi avancé na bu baax a baax ci xel rek laay wax. Hmm. liggéey bi avancé na bu baax a baax te dañ ko war a livrer sous peu de temps. Hmm. amaana bu ñu fa jaaree dina retarder liggéey bi. wala dina am lu mu yàq. non bon xaw ma kañ lañ koy livrer ah, non c'est-à-dire damay damay damay damay expliquer quoi c'est-à-dire waaw damay liyaar voilà ma ne peut-être jàpp na li maanaam. normalement avant la fin de de de l'année ça doit être. peut-être jàpp na jàpp na loolu. te war nañu. normalement j'ai dit. war nañu war nañu war nañu Pa Moussa day noppi quoi. noppi. comprendre nga donc euh, jàpp nañ ni liggéey bi mu ngi avancé euh, ci beneen yoon bi aussi fi nga xamante ne war nañ faa jaar défilé la ñu jëm 4 avril amaana foofu it mu ngi en chantier ñu jàpp ni bu ñu leen autorisé pour ñu marche fa mën na am ay dégâts yu muy indi préfet ci ci ci xelam mën na ne kat lii la ma yoon may waaye ñoom fi ñu bëgg a jaarale seen marche bi foofu pareegul baaxul mu ne leen kat fii ngeen bëgg a jaar baaxul dem leen ngeen wuti feneen wala fi ngeen bëgg a jaar baaxul ñoom ñu bind wax ne ñoom ñu bind jàpp beneen jour pour pour beneen itinéraire c'est-à-dire bu ñu waxtaan ci jàmm. Hmm. ci nañu leen fexee nu jàmm amee ci réew mi. Hmm. bu ñu nee benn côté bi rek ñoo war a dox tànki jàmm non non non ñaari côté yëpp dañoo war a dox tànki jàmm réew mi ñun ñoo ko moom te li fi nekk yëpp ñun ñoo ko moom kenn moomu ko hmm. président Macky Sall daf nekk ba jeexal dem bàyyil bàyyil ñu ko fi. Ousmane ko mii bu nekkee président daf nekk président ba jeexal dem bàyyi fi li li fi nekk du fi yóbbaale dara ñun ñoo ko moom li ñuy yàq ak li ñu toj yëpp ñu ñoo ko moom donc bu ñu wax ne na jàmm am ci réew mi dañu war a wax ne ñaari côté yëpp nañu dox jàmm tey mënuñu ne ñoom ay républicain lañu par exemple la ñoom dañoo bëgg réew mi wala ay patriote lañu Ousmane ko a dit comme ni mu waxee ne doomam dafa war a jàngi ñu empêché ko mu jàng mais moom bul fàtte

c'est que comme ça mais il faut que tu perdes le fil de ce que tu dis quand même parce que cette fil là ce n'est pas bon il faut chercher un autre parce que vous nous interdirez manifestation ci le euh, trouble est am trouble bi bu il faut imputer sa responsabilité la manifestation trouble pourquoi bu interdire manifestation yow bu police bu yow ñu en danger. wala mais exemple la jox. non exemple lii nga bëgg a def ci jamono ji mënoo koo def ci jamono jii ji te moom mooy l'autorité nangul naa ko ko da nga ko ko donte dafa jalgati yoon parce que dañ ko bul nangul ko ko rek déedéet mais bul ne bul ne force damay damay non parce que yoon daf ne ko bul bul bul interdire tant amoo ñaar yii moom mu ñëw wax leen kon. kese d'accord dama ne la dama ne la dama ne la peut-être mom ci xelam ci xelam. non non waxuñu ko mu utiliser xelam dañ ne ko mu appliquer texte bi. koku koku après nga wax ko moom. mais dama mun na am ay renseignements mu na am ay renseignements yu yoon daf koy nak mm. bo amé ay renseignements. Mm. yu la taxé interdire interdire mais yoon wax ko loolu yoon daf ne ko ñaari kese lañ la may nga interdire. faaw ñu dajé ñaari. waaw kese kon bo amé benen renseignement yi ñun su yoon nekkul ci renseignement bobu tu appliques le texte parce que l'état de droit moy état bu soumettre au droit alors que notre état est en train de violer la loi loolu nañ ko jëk wax kon problème bu ci am il faut imputer cette responsabilité là à l'État foofu c'est-à-dire man li nga dàquma ko de. dara ko dàqee non non non non boo nee préfet bi am na sañ-sañ. démb laa toog fii non laa toog fii démb démb ko def nga ne ko noppi. finalement yaa yàq def nii sa loxo yi. nekk mu noppi ci. non Paul de moom man rek lay attaqué quoi. non mais c'est par exemple um la rek échange la voilà échange la voilà moi je échange bu mu garaaw contradictoire justement regarde les images mais mënuma bul bul bul buñ la defoon nii sa biir mais mais doo leen ma yónnee non mënuma forcer non non Pape Moussa mënuma forcer wax loo ma lu ma bëggul wax c'est pas possible mais mi ngi yàq sa wax kanam da wax ma nga bokk non non bàyyi ko nag bëgg la yàq ko bàyyi bàyyi ko nag après mënoo koo dicter da nga ma wax loo ma lu ma bëggul wax Pape Moussa mënoo ma mënoo maa gis loolu ma bëggul gis. c'est pas possible non non non mënul pas possible. li li nga dàquma ko. fii laa toog barki démb ak démb ma ne ci année préélectorale la ñu nekk benn manifestation waratuñ ko interdire maa ko fi wax barki démb wax ko fi démb. tey nga bëgg a wax leneen. non waxuma leneen da nga déglu mënoo mbéj génn lu sàmb te xamuloo li muy wëlis. da nga may déglu ba ma daaneel ba ma bëri Samba non mais quand même. waaw d' accord Samba wërës sérieux toi aussi bàyyi ko mu mu développé. non bu fekkee da ngaa ñëw pour saboter nga wax ne da ngaa ñëw pour saboter tey après voilà ma xam sa. waaw continuer posture continuer. c' est à dire dama ne la autorisation bi mënu ma ci autori non autorisation bi mënu ma cee sori parce que peut être euh, euh, euh, préfet am na leneen lu mu jàpp ne ci ci liggéey beeg yooyu noonu li ni mel leneen li mooy Ousmane Sonko. Hmm. moom ak leader yeeyu askan wi. nous ñoo taxaw à ci terrain ACAPES ñu ne autorisation ou pas dinañ def sen manifestation. c'est légal Loulou. c'est légal. Mhm. d'accord ñu ne autorisation ou pas dinañ def sen manifestation ils ont défié l'autorité gaay xey tay tey barricade buntu Ousmane Sonko ana les leaders yi xaar beaucoup bokkul ci manifestation yi. même la manifestation aussi c'est pas il faut. Mhm. Oh, c'est pas hier, quand même non mais c'est Pastef d'accord mais ñeneen ñi ñëpp ci wétu Ousmane Sonko né par force ñom dinañ marche tay dinañ marché suba anañu dañ leen a fàtte wala dañoo bokkul ci manifestation bi. kan moo ci kan moo ci ñëw kër Ousmane Sonko ku dul Guy Marius Sagna. kan kan moo leen ne ñu ma ñëw kër Ousmane Sonko. non mais c'est-à-dire lii ñu def Ousmane Sonko nii. Hmm. man bu ñu ko defoon sama leader wala ku may àndal dinaa fa ñëw. dinaa fa ñëw dañu may gazé wala ñu def ma leneen mais ce que Guy Marius Sagna a dafa dafa euh, il est il est il est moo tax mu xëy tey sol yéreem ne damay dem kër Ousmane Sonko ànd moom moom kese moo ko ci def ana ñeneen ñi Ousmane euh, Guy Marius Sagna ak Abass Fall ana ñeneen ñi mooy li ma fi wax fii démb dañ koy nax dañoo nekk ci wetam di ko nax te Ousmane Sonko xam ne ne ñi mun ñi muy àndal ci manifestation yi dañ ko nekk di ko nax pourquoi moom kese lañ barricadé këram pourquoi barricadé wuñ yeneen këram yi yeneen kër yi pourquoi Ousmane Sonko su munu génn yeneen leaders yi mënuñu génn ñu def def def marche mais mais est-ce que du loolu aussi mooy le problème est-ce que war nañu nekk si Ousmane Sonko war na génn këram wala warut a génn këram dans un état de droit où la constitution garantit c'est-à-dire moom non c'est pas Moussa s'il vous plaît pas Moussa s'il vous plaît bàyyi ko mu wax s'il vous plaît pas Moussa bàyyi ko mu wax s'il vous plaît bàyyi ma ma poser sama question mu répondre ni mu ko neexee quand même Oui, s'il vous plaît parce que aussi dans un. état de droit. naa du ma dans un état de. bon ragal naa ne du ma yëgal plateau. waaw mais je disais que mais je disais que dans un état de dans un état de droit euh, quel que soit Alpha quand même manifestation bi c'est à 15 h donc Ousmane Sonko c'est un Sénégalais comme tous les Sénégalais. gis nga lii war nañu ko may quand même. oui amul kenn ku ko rafetlu laa lay wax nii. on est en démocratie. Hmm. man rafetlu wu ma ko. kuy rafetlu lii ñu def Ousmane Sonko nii naa fex nga. déet waay non si. si si si. respecté les non non mais mais si loolu non non loolu moo am. parce que man su ma su ma jàppee. moom doomu la ñu huit heures ñu barricadé bu waxuma la buntu kër Ousmane Sonko mais cité kër góor gi cité kër góor gi kenn amu fa accès tey des journalistes yu nga xamante ne dégg nañ dañoo xëy ñoom dégg ne barricadé nañ kër Ousmane Sonko ñu génn pour wuti ji ay information ñu gazé leen jàpp leen maltraité leen torturé leen ba paré ñu né ay ay journalistes dañu nekk di xamb yan journalistes ñoo fi xamb c'est-à-dire ay waxu tiaxan la kenn rafetlu ko mais dama né ci forme ci ci ci li nga xamante mom la euh, dogal bi autorité bi autorité bi jël. lu tax rek bu autorité bi euh, interdire manifestation. Hmm. toujours dëkk bi dafa wara tak tàkk. ñu ni autorité bi mom mo euh, préfet mom mo mo mo mo moo autorisé wul. responsabilité ngay wax aussi. responsabilité yi ko wara partager man fofu lay waxé dama né la le le préfet est responsable mais aussi euh, l'opposition wala bok Ousmane Sonko sont responsables. responsables de quoi. sont responsables au moment où y nañ une manifestation ñom ñep xam nañ né li sen droit la mais qu'ils ñu génn ñu ne kat ñun nee nañu dañuy marcher def nañu nous ak li bay nañ bay nañ marcher mais bu on est dans une dictature qui est debout maintenant di daw. yow ya, di boo xamante ne yow chaque jour nga toog fi wax lu la neex te dara du lañ mais mais parce que man. non il a des amis mais actuellement actuellement di ko wax dictature man dictature moo am Sénégal. bii nii mooy bii mooy nit ki du génn këram mooy man rajo ma réew mi. mais tey nii koo xamante dafa taxaw Macky Sall moom moo ko waxal boppam. Hmm. fii ci Ndiarème mu ne ku ñu tere manifester dañ lay fël dem suñu yoon loolu foo nekkoon en ce moment-là où état du Sénégal taxaw di compromettre les euh, les libertés individuelles nit tok bir këram ñu ne ko doo génn sa bir kër nga ne loolu du dictature nit wara manifester nga ne ko do fi manifester constitution bi yow ya ko waxal sa bop nga ne préfet limu wax li mu def tegu ko ci yoon mais préfet bi tegu ko ci yoon légui nit ñi dañoo wara a taxaw di sétal képp ku ñu dindi sa ak ak sa yelef constitution mo la may droit à cette résistance là résistance bi Ousmane Sonko woote bi mu nekkee constitution moko ko may ne ko fu la xané sa ak ak sa yelef jugal nga taxaw.

ñëw taxaw Ousmane Sonko joxe dis discours am ñeneen ñu joxe seen discours ñëpp ñibbi ci jàmm ak salaam Ousmane Sonko di ñibbi ci këram ñu ne ko doo fi ñibbee di gazé. d' accord Pam Sam d' accord tamit il faut arrêter mënoo. mënoo génne leen contrôle judiciaire. dootoo génne Pam Sam s' sa kër lañ toll. après nga ne duñ ko wax dañuy waxee. voilà waaw li boo waxee nag bu ñu arrêté da ngay arrêté boo wax rek ah. jëmale suwa waaw mais ok ok da ngay arrêté Paldi. alors quand même euh, yow bëri na ci say wax euh, je pense plusieurs fois euh, affaire responsabilité ngay wax même moom moo léegi mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy wax alors aujourd'hui est-ce que comme ni ko Pape Moussa wax Ousmane Sonko wala ses partisans bu fekkee dañu sentir ne dafa am ak àq ak yelef bu élémentaire wax deug yalla bu len xagn moy moy mooy génn dox say soxla wala yóbbu sa doom école. Euh, est-ce que nous, avons peut-être wala yi dem responsabilité euh, l'opposition wala état wala responsabilité la responsabilité. Euh, dans ce problème là il faut d'abord ñu xam lan l'interdiction du préfet pour pour manifester. Hmm. les mesures yi nga xamante ne dañ jël pour embrigader Ousmane Sonko chez lui. ñaar yëpp peut-être que effectivement les deux am nañ am nañ am nañ peut-être lien. mais man dama jàpp ni xam nga au-delà de de la constitution bi nga xamante ne dafa ne que ni le préfet concomitamment dafa war a am un réel trouble à l'ordre publique et un manque d'effectifs. Mhm. pour pour gérer ce trouble la pour que mu mën a interdire une manifestation parce que ci régime déclaratif lañ lañu lañu lañu la ñu toll euh, oui. Lol sommes d'accord nous ci mais pour moi, le rôle du préfet fay dépasser euh, da que am situation yo xamantane dans l'interprétation stricte des lois parce que loi maillage la rek code constitution maillage la bo am ay euh, en tout cas ñi bëgg jaar ci prof de yi xam dañuy xam loi ci alors l'autorité politique à mon avis pour moi, mhm. euh, sa responsabilité y a ci ne damay soumettre exclusivement et, textuellement aux lois faut comprendre quel est l'esprit de sa mission et comment faire pour respecter ou faire respecter cet esprit de sa mission n'est-ce pas Il comprend. donc l'esprit de sa mission c'est de gérer l'ordre public de manière générale L'homme la mission préfet l'ordre public dans le territoire qui lui est assigné Mou gérer gérer quoi pour que mou jaar aujourd'hui qu'est-ce qui se passe parce que 365 jours sauf les jours de manifestation Ousmane Sonko va et vient sans problème Ces militants la presse dañuy aujourd'hui manifestation une manifestation autorisée qui a été un succès politique pour Ousmane Sonko et un succès dans l'organisation ba ci préfet bi nga xamantane mom moko autoriser autorisé ma gis force de l'ordre et de sécurité yi djeli Ousmane Sonko wat ko keureum mi ngi wax quelques escarmouches mais mais mais foofu la aujourd'hui mom mu aujourd'hui nañ def tamit des manifestations dans tout le Sénégal manifestation pour lan demain nañ def manifestation pour lan li am nak moy Ousmane Sonko ken mënul départager également lolu ak li xew Ousmane Sonko dañ ko convoqué

mën na am risque réel de trouble à l'ordre public. su demee risque de trouble à l'ordre public yomb na leen de. non c'est pas moi qui qui dit qu'il y a risque de trouble à l'ordre public encore une fois waxuma loolu. ñoom waxuñu la ko dama ne xam nga. préfet tamit waxu ko de. Ah, kan préfet. lan la wax il n'a pas dit ça hein. si si pour suba. non non non suba waxul ci suba. préfet waxul ci suba ci tey la wax. waaw yow yow nga bëgg a wax. waaw non man may wax ci sama analyse politique. nekkuma ci sëñ bi. l'arrêté du préfet teg ko fële. constitution ak yooyu teg ko fële man suñu vivre ensemble laay wax. parce que yii nii loolu lay traité. suñu vivre ensemble daf na suba day am trouble. non j'ai mais attends j'ai pas dit ça et amal décence niñ la déglo nga dégluñu su fekkee da nga bëgg saboter débat bi bi nga waxé li nga wax ba paré nga def ko amul problème mais may ñu ñun ñu wax liñ gëm après ñu débattre ci je awma ragaluma contradiction bañu ma ko nañ waxtan alors ci ci loolu noonu demain su fekkante ne bàyyi nañ ko naka lañ koy organiser naka lañ koy défé ba nga xamantene même su fekkante ne ñi ñi ñi ci biir tribunal bi di rendre le droit fenen mën na am leneen man awma awma awma awma awma awma awma ay outils pour xam loolu man man moi je n'ai pas d'outils pour savoir cela un commissaire a été commis pour mu def enquête ci fiñ ñu bëgg jaar seen itinéraire manifestation bi yooyu commissaire bi am na lu mu leen wax mais état au niveau le plus élevé également dafay am ay renseignements mhm. tant que manifestation mhm. pacifique la manifestation politique la manifestation civile wala benen bu nous sommes pour la pleine expression des sentiments des Sénégalais loolu ça ne doit souffrir De d'aucun doute maintenant profiter des vides juridiques pour bugger... politiquement wala am pour bloquer Des institution wala bloquer deuk bi ni là dañuy wax carrément à haute et intelligible voix non

kenn kenn kenn du ci mucc en tout cas ñun ñii. Hmm. nga xamante ne citoyen kese lañ duñ ci mucc. mais a droit à la résistance bi Pape Moussa di wax. mais c' est un droit c' est droit man bañu ma ko résister. mais xam nga lan laa bëgg. que ne est un état aussi tellement fort que ku résister. Hmm. bëgg ko euh, euh, euh, bëggu ëlbati résistance bi bëgg oppresser l' état état jaar sa kaw wan na ni moo la ëpp doole man loolu laa bëgg bëgguma état boo xam ne dafa faible ba nga xamante ne benn nit. quel que soit son pouvoir d'argent voilà d'adhésion populaire wala leneen ak leneen de réunion, da ngay état quel que soit le lobby qui est derrière toi muy lobby sénégalais extérieur lobby homo wala leneen ak voilà wala wala leneen ak leneen donc qu'il résiste ne résiste, mais sous résister nous tamit ñu xam ni état bi kat fii la taxaw mais Boba, baa duñ dem si dictature parce que l'État c'est vrai que est fort parce qu'il a le monopole de, la violence légitime comme on le dit bu faire que nous devons résister confort dictature mais mais mais non mais lan dictature parce que dictature dictature régime su wax ci régime imposer sa volonté en faisant fi des lois ak yooyu noonu li nga xamante ne. ah ñoom di ressentir. mais su fekkente ne dafa am benn nit wala benn groupe bo xamante da fay imposer également sa vision des choses sa loi lan lay doon lolu mo gën a mo moo pire. ku imposer sa vision sa non xaw ma ko. xaw ma ah, ma parce on parle du cas Ousmane Sonko. wa non le cas Ousmane Sonko xam nga lan la. li ma wax moy man dama ne li ma gis. Hmm. c'est quoi pourquoi on a choisi le 14 le 15 et le 16 pour manifester alors que le 16. Ousmane Sonko bi ngay wax dafa rendez-vous avec la justice bien sûr bien sûr waaw waaw waaw ci sama gis-gis ci sama gis-gis ci sama gis-gis ci sama gis-gis pour un citoyen ce n'est pas parce que tu es adoubé par les populations que da ngay utiliser ces populations là pour se soustraire à l'exercice de la justice quand on parle d'état de droit également il faut que la justice puisse jouer pleinement son rôle et que personne personne dans cet état ne puisse se soustraire à l'exercice de la justice. L'homme est loolu mooy loolu mooy état de droit également. leneen lu ci des pas la ak subterfuge. D'accord, c'est une Fall alors la même question là a posée, l'état de droit aujourd'hui au Sénégal par exemple euh, l'État de droit reste que l'état droit reste fort quand même ça c'est vrai euh, mais Ousmane Sonko aussi c'est un citoyen qui a le droit de déplacer les donc aujourd'hui cette situation là est-ce que dans les Japonais, l'état si le la comme les pas Moussa nous sommes dans une dictature Je pense que elle est fort damaa jàpp ne état warul nekk maanaam waruñu xaar foraayu état ci aw askanam maanaam waruñu ko xaar foofu daal état fort mel na ñun dañu jàmmaarlook beneen réew di xeex ak moom daal ñu naan état fort xam nga loolu lay nuru parce que bu fekkente ne dañu yor force de l'ordre ñuy jàmmaarloog ndaw ñi ñuy jàmmaarloog askan bi ñu ne dañoo war am état fort ça veut dire que kon am nañ problème parce que damay jàpp ne ñun bu ñu nee dañu am sécurité bu doy rek. dañu hmm. war a sécuriser boobu mooy première chose bu ñuy wax. dañu wax ne manifestation da ngay joxe dañuy dañ lay defal autorisation. waaw euh, mu mel ne dañuy comparer ñaar yu bokkut mu mel ne dañu ne Pastef moom waruñu ko jox autorisation ba nga xamante léegi parti Pastef pour mu def manifestation ci Dakar rek il faut mu dem joxe au nom de coalition bi mu bokk parce que loolu lay nuru parce que tey Pastef moo laaj hmm. parti politique légal. war a def ay activités am ñu ne ko doo ko def dégg naa sama confrère ñu ne démb ñu manifester tey ñu bëgg a ñu bëgg a boole. ak suba boole suba suba ñu bëggaat euh, manifester. Euh, ñu bëgg a ñu bëgg a boole tey laaxu laax ak ceebu jën te loolu mënu nekk xam nga parti constitution légale di def li mu war a def. kooku bokkut ak ak ab coalition. vraiment <laughs> loolu loolu loolu dafa dafa dafa dafa dafa doy waar daal wax dëgg yàlla xam nga ñi ngi wax yeew yi ñu bàyyi leen bu dee Pastef kese waaw léegi ñi ngi wax ne <laughs> euh, dictature mais dictature sélective moo am parce que am na nit ñoo xamante ne tey fi mu toll nii maanaam mm. li ñuy dund maanaam dictature moo gën a sedd boo ko nattee tey rek ci Ousmane ko tey li li waa këram dund ak cité kër góor gi li ñu dund rek tey nga xamante ne dictature sélective carrément moo am manam lu kenn ta werante manam kër goor gi tay dictature lañuy dund dictature bi pour lan motax ben opposant ma nga fa opposant bi bay tej nañ kërëm dom nang wuñ mu jangi te ñom seeni dom di jangi xam nga lolu buñ né dictature mi ngi fi am wax du yalla man damay wax né dictature debu carrément mo am dictature bu taxaw bu visible bo xamante ne amul kenn ku ko mëna natablé xana nga ko mëna wax ak ki ko mënta wax mo fi nek mais mhm. ñëpp gis nañ ko. Mhm. parce que nag euh, tey bu ñu nee manifestation ñu ne préfet aaye na ko mais man dama jàpp ne préfet wax dëgg yàlla waru fee nekkal maanaam euh, lenn lenn rek moo war a mën a nekk facilité laa jàpp ne préfet moom la mu war a def bu ma ñëwee wax dëgg yàlla maanaam dafa war a mel ni rek prof buy jàngale walla euh, kuy jàngale koo xamante ne bu ma ñëwee man li ma bëgg dana ma ko mën a faciliter ba ma mën koo def ci jàmm. parce que moom lañ encadrer le loi yi damay japp ne jamm ji dafa wara am fum jëkke jamm nak ñaar manam jamm bu fekkente ne dañuy wax naan ñaar ñepp dañu wara wote jamm lolu man damay japp ne wax du yalla ku koy wax ku ne. ñaar ñan euh, ku koy wax ku nek manam da ngay wax lila neex parce que jamm dafa am ko xamantene dañu ko denk am rew war ko laaj mu moyor manam force de l'ordre lepp ci ay waawam lañuy wéy koku mo wara mëna taxawal jamm mais ké bu néwon jamm jamm fi fii ba suba mënu ci rombu kaddom gi comme nima koy waxé man bëgg jamm man jamm rek la mëna bëgg mais munu joxé jamm parce que yoruma ko ki yor jamm moy joxé jamm mais ki yorul jamm bo né da nga war wut jàmm moom nan lay wuté jamm mais yow da nga bëgg euh, dédouaner complètement Ousmane Sonko ci né mun ta participer si peut-être si processus paix bi nga parce que mom aussi sama ngi koy wax légui mm-hmm. jamm deug la état war na si dox mais aussi les les opposants aussi war nañ si dox mais léegi Sonko bu toogee këram. woo woo ay ay goneem par exemple na leen voilà bu ñu. mais lan moo tax muy woote maanaam xëyu xëyu woote de. waaw mais woote bi fan la jógee. parce que taal yeeg ya, iya, taal yeeg ya. iya, iya. wax wax ñu fan la jógee ya? déglu ma rek dama ne parce que démb quand même démb discours bi mu def quand même waaw xale bu ko dégg mën nga jàpp ne fi mu ne yëf yi xeex kese la bu doon keneen la ku dul Ousmane Sonko discours moom may ma rek ngir yàlla bi ngay wax bi ngay wax dama laa déglu ba jeex dama laa déglu ba jeex non xam dama doon dama damay préciser rek damay préciser rek maanaam li may préciser mënoon naa non yow waxuma la yow kii laa yow kii fan laa doon wax neen nañ waxtaan allez-y yeggalil d'accord gis nga bu fekkee réew mi dañoo bëgg jàmm man mayor sama kaddu sama kaddu kese la yor jam la mëna bëgg mais fallu yow munuma man buma sama kër wala ma bëgg dox sama soxla hmm. exemple wala ma bëgg def sama activité ta loi may mako yow mi nga xamantene si yow ay responsable mayo mako bu yagge lan lay def bu yagge dama koy jël far force parce que lool mooy dëgg Sénégal gi ba mi am indépendance bu fekkonté né ñi taxawon tay place indépendance di laaj dañu tok rek japp seen bop nan senegal nëga ni ah jarbaatu dogal wala doomi dogal moy ñi jité wala seutam dafa am ñu xex démocratie bi bam tollu fi Senegal am indépendance senegal di dox waru ñu waru ñu ko mëna bayyi bàyyi muy naax saay fii bari na rew yu ñu wër yo xamantene tay tey ah lu mel ni mo fa andi problème yi guiné Alpha Condé nan la doon def nan la def Seydou Dalein Diallo ay résidence surveillée yo xam illégal mais askan bi ñu démé bam uppi loxo mais lan la fa jur mais olof dafa wax ne ku la njëkk rër wan la lu ñuy rër nañ bayyi manam wax lo xamante ni si leer na nañu li ñuy wax buñ ak suñu ngegeenaay buñ tëddee duñu nekk conscience tranquille jàmm ci réew mi jam han ah, kenn yuru ko fi melnu Macky Sall mo fi yor jàmm nañ bayyi partager jàmm ji yow fallu sa cadeau yalna na ya-, ya-, ñi dañuy ñaan ne yalna na am ñi naan jam la bëgg mais sa waay nit ki nag wax dëgg yàlla nag boo ko sësee ci miir bi xanaa mu sax boo ko doon dóor ba mu sës ci miir bi bu yàggee ci sa kaw la jëm d'accord mais loolu loolu kenn wéranti wu ko euh, am na question beneen kii bi loo ci waxati <laughs> euh, ci ci ci manifestation ban nga wax nga ma laaj léegi non mais ok répondre nga man. non non non non ma laaj ñaari question waaw waaw benn bi la ma fàtte moom laa lay laaj. kon kay chiffre. non chiffre naa man si manifestation parce que man bon si blocus bi Ousmane Sonko ak. dictature bi ñaari ma ñëw ma ñëw xam nga blocus bi wax naa ci wax naa ci. ak si dictature peut-être waaw ñaari la woon wax. blocus bi wax naa ci. xam nga interdiction bi peut-être. waaw non interdiction bi. xam nga inter dañ ne la booy interdit. parce que du Dakar kese ah bëri na ay localités yu ñu leen tere. waaw na am na local yoo xam jox nañ leen autorisation. waaw na fu ñu war a natt mooy yi ñu jox autorisation ndax jàmm am na fa. wala jàmm amu fa ñi ñu joxul autorisation lan moo fa xew. ginnaaw yow boo joxee autorisation jàmm am. Mhm. boo joxee autorisation maanaam leneen xew mais nga joxe autorisation parce que itam nag. Mhm. Euh, euh, maanaam bu fekkente ne joxe woo jàpp mais maanaam aw ay am nga ñàkk nga nga joxe jàmm am mais nga joxe. d' accord loolu loolu loolu mooy dëgg. d' accord Pape euh, waa Pastef tam def nañ ab communiqué ah ne ni ngi woo képp koo xam ne ab militant Ousmane sonk nga na nga ñëw kër Ousmane Sonko ngir dindi blocus bi ñu ko def alors démb je pense ñu ngi doon wax jàmmaarloo entre les forces de l'ordre ak askan wi donte Ousmane Sonko démb leeral na ne. Euh, amul ak les forces de l'ordre quand même mais bu fekké loolu aussi parti parce def xamné agir à travers les forces de l'ordre est-ce que vous mën ta indi lo bo xamné mën na ag fuñ ko fuñ ko boba peut-être Ousmane Sonko wala son mi jeunesse bi le responsable voilà donc Ousmane Sonko nee na jàmmaarloo kenn waxu ko ay policiers loolu ñëpp dégg nañ ko. donc a dit clairement mais kenn la dañ la laaj ba wax. ko wax waaw waaw kon yow bàyyi bu ñu nit ñi di wax. nga këpp seen wax yow li ñu dañuy d' si loolu. mais soo paree doo dagg.

doo génn seen kër pour xeex bi foo koy dugal seen kër kii nii moom pare ngeen pour xeex bi foo koy dugal waaw xeex loolu c'est un droit ko ça xeex bu ko jëlee bu ko jëlee au sens de tirer wante Ousmane bàyyi leen dox bakkan bu wax bakkan bu bakkan bakkan bakkan noo koy jëlee bakkan wax ma bakkan noo koy jëlee waaye ma ne nga ah non wax ma bakkan noo koy jëlee wax ma non déedéet déedéet nous sommes cinq à parler nous sommes cinq à parler ah nous sommes cinq ah ok très bien ah d'accord ayca bismillah tontu nii. duma moom mooy laaj duma ko tontu. ah si mën nga ma bañ a tontu mais dinaa laaj. mën nga ma a tontu ah si si dinaa laaj. bakkan bi mu wax la. bakkan bi mu wax waaw d'accord

c'est-à-dire nañu arrêté naa fekk. mais responsabilité mais est-ce que woote est-ce que woote mooy est-ce que woote mooy la solution. parce que waaw waaw bien sûr bien sûr woote mooy solution bien sûr bien sûr. askan kese moo mënal état dara Ousmane Sonko mënalul état dara. Pastef mon état dara mais si le peuple sénégalais se soulève hmm. amul kenn gis nga fi euh, le régime beaucoup plus militaire que le Sénégal muy Ben Ali gis nga régime bu ëpp doole bu régime euh, Sénégal muy Xadafi muy Moubarak ñooñu bi peuple jógee dañ jug taxaw peuple kese taxaw résistance face à ces forfaitures d'état là donc Pastef que wax hmm. lu la Sénégalais la hmm. blocus illégal nga ko ci kaw nit hmm. mais euh, Sénégalais ko dama doxi sa soxla d'accord parce que Ousmane Sonko nga illégalement ci la décision du préfet est illégale tout le monde l'accepte

et puis on doit laisser passer quoi. Macky Sall président de la république. Mm. dafa taxaw fii nii mu ne Abdoulaye Wade buy forcer mandat dañ dem déjati ko palais ñëpp gis nañ ko soulèvement populaire délogé Abdoulaye Wade du palais am déet yore mer gàddoom ne day fanaani euh, obélisque am déet gisoo leen ko. loolu c' un droit constitutionnel que Macky Sall exerçait à l'époque. absolument pas pourquoi tey ah, tey pourquoi tey. ku war a manifester sa désaccord ñu war la ko mën a bañal attention manifestation ak rassemblement beaucoup. manifestation ben nit mën na ko def. benn nit mën na taxaw jàppale am na lu ko naqari ci réew mi mu dem taxaw fi mu taxaw bu boobaa ñetti sénateur yi foo koy jëlee benn nit kookoo kontaan loolu nag tey jii nii foofu la Sénégal toll que ni dañoo war a euh, li may wax léegi di jëm élection boo xamante ne 2024 kenn moo leen leer ne bokku ci mooy ki nga xamante ne constitution dafa ne ko mënoo def ñaari mandat yu tegaloo kooku moom leer nañu ne bokkul ci man euh, élection yi mais ñeneen ñi ñi nga xamante ne dañuy concourir mais ku ci nekk am na benn épée de Damoclès bu taxaw si kaw dans ce cas là parce que euh, Macky Sall le président qu'est-ce, la la justice di euh, freiner ay candidats Manela, c'est toujours présenté. Abdou c'est toujours présenté. Mm-hmm. Abdoulaye Macky Sall ak Idrissa mm. ils sont toujours présentés. Mm. Macky Sall élection éliminer adversaire Karim Khalifa

Euh, kii mais ñoom xanaa dafa gisul lettre d'information bi sax. waaye man yow laa laaj tontu ma. mais parce que nee ma lii ak lii ak lii la. voilà c'est parce que un. tu n'as pas vu la lettre d'information. non wax li ma gis ak li ma gisul waxuma la gisul dama laa laaj. dé déjà. Euh, non Pas Moussa ça. Moussa. Euh, pa Moussa bul wax ne gisuma man dama laa laaj da nga may tontu wala nga bañ maa tontu mais bul wax ne gis naa wala gisuma. waaw mais gisoo nangul n'a gisoo ko boo ko gisoon doo laajte question

leader passif dafa répondre à un ministre de la république bu ko porter plainte pour diffamation mais attends lolo lan la lu dul xëy si kër euh, tribunal Lolo, loup j'étais qui manifestation bien ak Karim Wade di ay Macky Sall bi muy wuyu ji sûreté urbaine euh ci ay affaire blanchiment ay ñoñum andu ñu won ak mom da nga xati Cicelo boo ko laalee laal nga fatik boko laalé laalee nga Fouta tu te rappelles bu wa APR ñom ñoo dressé won en bouclier gungé ji président Macky Sall d'accord wa légui tay ji di Ousmane Sonko buy dem hmm. ay ñoñum diko gungé gunge du waru wala waru mëna nek nekk wala Ousmane Sonko daal mom c'est une euh, c'est un moment à part motax may dégg nga l'argument que monsieur Pré dégg nga argument bi Pape Moussa joxe dag ma tëb non non mom après ni la def

Mm. ci manifestation mais yow man daal wax laay bañ a dégg na non non pas comme ça de saboter bi nga def dégg mais s'il vous plaît non dafay dégg vous êtes Fallu Fallu boo déglu damay wax ñu fay sa micro ah, déglu waaw moom s'il vous plaît continuez li ma bëgg a wax de dinaa ko wax ah, yéen ñaar ñii mënoo leen ma ko tere déedéet kenn dañu saboter parce que da ngeen wax da ngeen déglu ba ngeen pare ngeen ah, ngeen yàq gars yi dañuy temps bi temps nous est compté dañu am heure waxal Ousmane Sonko. mais nag boo interpellé Pape Moussa bu la tontu bu fa. non non interpellé wu ma kenn dama ne Ousmane Sonko démb li mu wax lépp ci manifestation bi keneen ku ko waxoon ku dul Ousmane Sonko keneen ku ko waxoon ku dul Ousmane Sonko doo fanaan sa kër ñaata nit lañ fi jàpp tëj ci kaso bi parce que tout simplement toog nañu ci simple commentaire simple commentaire wax dara jëmali ci président de la république wax dara jëmali ci institution yi wax dara kii euh, li muy def incitation à la haine la wala incitation à trouble trouble à l'ordre public la ñu japp la tëj la Ousmane Sonko démb dafa taxaw wax lu ko neex bi mu paree dem ñibbi kërëm la fanaan té kenen ku mu doonoon laa la wax fofu fofu noonu non kenen ku mu fa nekkoon do fanan sa kër wala bu subaa bu ñu jël si la yóbbu la. ba mu Ahmed Suzanne Camara. kii lañ taal kër Ousmane non non waxuma ay Ahmed Suzanne Camara. ah yéen ah bu ah, ay citoyen. kii lañ taal kër Ousmane Sonko dem ñibbi këram la. da nga ko fàtte. barki démb doomu ci ndaje Pape Malick bi ah, ñoom kon dam néew ma ko loolu non ko ko dam ne da wax ne ko def lan laa fi wax fii kii dafa ne dañ rey Ousmane waaw dégg ma lan laa fi wax fii fii lan laa fi wax da nga ne da nga ne ay commentaire leen di ko interpréter ne kenn wax sax waaw mais leen da nga bu ko interpréter wax bu ko keneen waxoon du tëddi këram keneen wax na lu gën a garaaw tëddi këram loolu lañ koy fàttali rek bu ko wax waaw ok demal. mais dama ma dimbali ngir yàlla ma wax. du boo waxee lu dul loolu ñu wax la yow it. non mais c'est pas possible. ah c'est possible bien sûr ça c'est une rectification. xanaa da ngeen ñëw di ci may yéen ñaar tey. waaw ba tey si le foofu. non c'est extraordinaire. pas du tout. non mais. mais nag xam nga ne boo waxee ne Ousmane Sonko d'accord Ousmane ya, Sonko ya. def na li muy ya. def. non non non li mu wax nii d'accord naa de Ousmane Sonko dafa def loolu fanaani këram waaye dama ne avant mu di ko def dafa am ku taxaw publiquement ne nañ damay man maay taali kër Ousmane Sonko la wax dem ñibbi këram am ku ne nañ ko rey dem ñibbi këram am ku agressé Guy Marius Sagna fii mu dugal plainte ñibbi kooko kenn defu ci dara Mariama Sagna ñu roy ko fii kenn waxut di garder Adji Sarr ah. war ñu garder Adji Sarr. di garder Adji Sarr la. non ma ne bëggoo ñu garder Adji Sarr. non non c'est vrai di débat bi. quand même war ñu garder Adji Sarr. ki ñu rey nag mais bi dem nag. ki ñu rey. am na y a eu plein de. mais pourquoi ngay Paldi quand même Paldi ok bàyyi demal. non non joxol Paldi mu wax c'est ah, wax mënuñu a tere. yow ñi dañ lay dañ lay perturber rek. non ah, dañ koy perturber. non li ma ko wax dafa am de. d'accord c'est par rapport ak woote bi nga xam ne ah. bi nga xam ne waa kër Papa Pastef def nañ ko pour jàpp ne pour peut-être ngir ñu dindi li ñu def Ousmane ko li du yoon mooy faaw ñoom ñëpp ñu ñëw kër Ousmane Sonko ngir xëy na fexe dindi loolu te loolu aussi si jàmmaar loolu lañ jàpp ne fa lay jëm non xam nga xam nga bon sa question bi dafa am double aspect dafa am deux aspects le premier aspect moy, le droit à la résistance bobu ñuy wax c'est un droit consacré mais même suñ ko consacré wul woon ku nek sa nga jël sur toi l'appréciation ne surtout face à cette situation man ni lay def damay jàmmaarloog autorité damay jàmmaarloog bour, damay jàmmaarloog dé, damay jàmmaarloog lu la neex Lolu lolu lolu lolu lolu ku nek mën nga jël cette responsabilité là hmm. mais dama né encore une fois encore une fois ci état man bi ma bëgg nekk en tant que citoyen état la boo xamante ne ku jug pour dal contre l' nga xam ni état moo la ëpp doole nga xam ni état moo aujourd'hui on parle de dictature mais dictature amul mënul am sans des force de sécurité kii wax dictature Macky Sall day def dictature gis naa mu pondre un texte pour tagg benn wala wax parcours koo xamante ne décret Macky Sall moo ko fal xanaa il participe à la dictature ci nga xamantene ne Ousmane Sonko su jugon ne par force damay def li ñi ñi ju par milier, par vague ne dañuy dem keur Ousmane Sonko mom moy taxaw mom moy tek dispositif ko xana element la ci dictature bobu nonu gis nga état bi ni du état wu euh, en tout cas ce Sénégal là likoy doxal du Sénégalu par parlo, ki la faral seppi ki fi jël ki fi du loolu Sénégal la bo xamantene ñun ñep dañ bok embarqué dans un même destin pour wax ni ko maam Abdou waxee woon dañ bokk benn gaal boo xamante ne liy sauver gaal gi mooy fexe ba kii dawal gaal bi mën a egg à bon port. na ko dawal ci dawal mais ku nekk ku nekk ku nekk ku nekk ku nekk fexe ba euh, sa ëmb mucc ëmb keneen ak keneen mucc loolu loolu mooy ce destin commun que nous partageons loolu suñ ko fàttee rek ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi c'est-à-dire que ñi ngi màbbal li nga xamante ne moom mooy jox sens suñu nation. et aujourd'hui xaw ma ndax toll nañ ci situation boobu xam nga parce que parce que bëri na tension yoo xamante ne ñi ngi koy yëkkati tension bi tollul foofu c'est c'est c'est une tension virtuelle boo xamante ne ñenn ñi dañ koy en tenir xëy na nag ñoom ñoo xam lan lañ ci bëgg mais Sénégal bii nii am une tension réelle normale mais qu'on peut circonscrire aujourd'hui des forces politiques am nañ gis-gis am nañ bëgg-bëgg am nañ ketu plus de liberté pour def lépp lu loo xamante ne loolu lañ bëgg bëgg c'est naturel c'est normal man amener am na lu may bëgg ci liberté loo xamante ne am ay contraintes mais chaque jour ma fexe nu may lever samay contraintes bés bu ma ci demee nag ba def ci loo xamante ne dama dal ci kaw yoon yoon su boppee doole teg point barre lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo loolu moom moo fi am mm. li fi des mooy mm. euh, il y a les politiques il y a l'État nga xamante ñi c'est également des politiques mais il y a une force citoyenne bu entre nous ñaar pour préserver li l'essentiel wax fi aujourd'hui dañ nekk à la croisée des chemins on parle de sauver le Sénégal sauver le Sénégal mais ban angle la sauver le Sénégal ak naka la ñuy sauver Sénégal loolu la ñu waxul loolu la ñu kenn euh, s'il faut sauver la démocratie sénégalaise mm. démocratie sénégalaise mooy euh, loi yi niñ ko organiser institution yi niñ koy des lepp lepp lepp ñu souveraineté peuple mais si faté ni souveraineté peuple ci constitution bi waxuñ ni peuple bi daf koy exercer directement souveraineté peuple bi peuple bi mi exercer à travers ses représentants à travers ses représentants le peuple bi exercer sa souveraineté une manifestation politique bu euh, public impressionnant ñaata lañ public chiffre mais chiffre boobu c'est une pouvoir pouvoir mais est-ce que une volonté de légitimité ou peuple absolument pas c'est faux Le vouloir le dire c'est vouloir mentir aux Sénégalais ni mu amee ñoo far foofu am ñeneen ñu far feneen amna ñeneen ñu gëm leneen amna ñeneen ñu gëm leneen dafa am nak lo xamantene ne lu ñu boole yépp mooy bés bu joté si lañuy dem ku nekk librement nga exercer sa volonté en tant que citoyen ñu xam mais en attendant loolu dafa am ko xamantene ne moom lañ fi tek Macky Sall c'est vrai que aujourd'hui suñ doon xool li ñuy wax mooy euh, naka la ko amna olof nu mu koy waxee euh, dina neex a jiiñ tombe mooy waral ay gaaf soo amee une opposition en deux mille dix neuf deux principaux ñi nga xamante ne ñoo waroon nekk sa principaux opposants bokkuñ mais mën nañ ni ah yow kat def nga ay pexe nangam nangam aujourd'hui su amaatee mën nañ la ko jiiñaat jiiñ la dëmm mais lan moo xew ci Ousmane Sonko lan moo xew ci Ousmane Sonko parce que ñële sax mën nga wax ni dañ doon gérer état am ay luñ def loo xamante ne du yoon justice dal seen kaw. mais Ousmane Sonko lan la problème ak Adji Sarr problème ak Adji Sarr mais ku nek na wax théorie complot mais man mënuñ ma convaincre ci deux femmes complot mënul nek ak dans tous les par tous les sens ku nek taxaw na di jëm expliquer mais mënuma gis complot ci bir li xew ci Ousmane Sonko ak Adji Sarr limay xaar moy que justice def ci lim ci wara def ci d'accord Ousmane Sonko mam qu'est-ce qui se passe Ousmane Sonko moo sur lui la liberté de parler deux dossiers et d'un homme gis ni dañ ko dans son honneur mu dem plainte mais ci loolu noonu su waree am lo à maintenir euh, la suite logique da euh, inéligibilité ou Ousmane Sonko. Hmm. mais dañ constater pour s'en désoler peut-être mais dañ constater. wax ni turpitude nit ki la maintenant wax ko gis nga dépasser il faut ñu ñu waxtaan entre sénégalais xam ni li ñu li ñuy séq ak li ñuy tiit ak li ñuy bëgg yëpp ñoo ko bokk ñu bokk waxtaan remettre les pendules à l'heure tegaat yu bëri ñu tegaat ko sur sur la table et su boobaa nag. Hmm. bu kenn foog ni benn rek la ñuy jël teg ko sur la table mooy le cas Ousmane Sonko su fekkente ne il va candidat mais su fekkente ne Macky Sall également il va être candidat par une légitimité populaire boo xamante ne kenn xamul nag noo koy nattee.

pour ñu ñëw lever le blocus bi ñu def ci kër Ousmane Sonko loolu est-ce que bu fekkee résistance la ñu wax loolu. mooy résistance mais hmm? blocus bu amul woon loolu da am. blocus bu amul woon loolu mais est-ce que loolu moo koy réglé woo xale yi ñu. non de mais léegi maanaam ki ko def. Hmm. est-ce que mu dul xool beneen pexe lu dul woo xale yi. wala Sénégalais yi ñëw leen maanaam léegi ku jàdd aw yoon ci fii tey. Hmm. ngay dawal oto jaar ci yoon wi nga mbëkk dara nooy def maanaam da ngaa def loo warut a def dañ lay teg ci aw yoon léegi nit ki bu amee droit nga bëgg ko koo xañ nan lay def mais mais mais mais lolu loolu ñun ay jullit lañ yàlla sax dafa ko wa nafsi bi nafsi wal hayna bi hayni lalu resistance force la nit ki ak ak yelleefam loolu <laughs> loolu du loi bi ñu régir de loolu du loi bi ñu régir de li nga wax ni du loi non non non dañu dañu dañu ne nangam nangam Adji Sarr ban Adji Sarr ban non li nga wax ne procès bi nangam procès lan man waxuma procès bi dama ne dama ne li wax du loi de dama ne dama ne Sonko dafa am deux problèmes. waaw mais léegi loolu. benn bi ak Adji Sarr waxuma ne loolu loi waxuma loi la. déedéet kon kay li ñuy wax nii man. mais nafsi bi ah, parce que ku non ku ñu rey sa mbokk nga jug ne da rey. déedéet loolu. déedéet déedéet loolu loolu régir ah, loolu tekkiwul sax. lan lay tekki bu ñu rey sa mbokk nga rey ah lan lay tekki. bakkan bakkan a koy fay. ah waaw léegi léegi kan moo koy fay. mooy loi. <laughs> loi la loolu mooy loi wu yàlla charia. déedéet ñun yàlla xam nga daf ñu may yàlla daf ñu may ne déedéet ñun suñu loi du loolu de suñu loi du loolu loolu moom bul bul mën nga wax ni yow loolu nga bëgg ñu def nag. déedéet bul bul naax ñiy déglu. non suñu loi moom ku ñu rey. suñu loi wax loolu da dem ci yoon. da ngay dem ci yoon yoon seet ndax ki nga jiiñ moo rey seet teg daan teg ko ay daan. ñu defal ko comme justice lañu la ñuy wax ko waaw oui oui. a li ma bëgg a wax. déedéet déedéet déedéet man nekk ma ci a wax mu leer lan la lan yàlla daf ne hmm. bu ñu la tooñee. Hmm. boo baale baale <laughs> la. suñ la jamee. suñ la jamee commentaire Bachir laay de. suñ la jamee bakkan waaw fa la ma yàlla waxee laa la ku rey bu ñu la war a def consultant coranique non non yàlla nee na yàlla nee na bu ñu la tooñee boo mënul baale fayul ma ne la fu ko yàlla wax kay man laa la laaj mais loolu mais loolu mënul mais mais loolu c'est c'est c'est logique fu ko yàlla wax non ndax dafa amul dafa li mu wax amul de dama koy laaj non ndax amul lu ndax amul amul parce que yàgg mën naa ko bañ a xam yàgg naa ko déglu say oustaz yàgg naa déglu say oustaz ah yàgg naa déglu say oustaz quand même bu ñu la tooñee am nga droit fay déedéet loolu moom léegi yàlla wax. léegi yow loo bëgg a tekkee wala xay na bi xay ni ba lun si bi lun si léegi noo ko bëgg a. tekkee loolu loolu loolu loolu bokkul de. waaw ba xam noo koy tekkee. loolu bokkul de. Eh, déet waxuñu bokkul de man noo koy tekkee. islam dafa am charia. islam dafa am yoon dafa am loi ak règlement. Hmm. mooy charia. Hmm. dëkk yi nga xamante ni. ci lislaam mooy dëkk la ñuy attewoo yëpp. lépp laaj ma Mauritanie islamique non dafa mais loolu mais loolu loi islamique la fenn nee ma rek lii lay teg loi islamique la c'est une loi islamique ñun amuñu wax dama ne loo koy tekkee tey wax yàlla dans un pays laïque non man waxuma pays lay lañ ne da nga maa laaj ne ma fu ko yàlla wax ma ne la lii ma la wax waxu yàlla la lan lay tekki nee ma lii lay tekki rek wala tekki wu ko c'est simple yow nga wax ni muy tekki. waaw yeggali. non du ma yeggali de. non eh, loolu mu ngi ah. tekki. Mm. Ah, maanaam ah, yàlla daf ne. Mm. ci alquran. Mm. ku ku ku ku ku rey nit ñu rey la. du loi. yàlla wax dëgg yàlla wax ko la yàlla ko. waaw ku toj bëtu nit ñu toj sa bët. waaw. ku dagg loxo nit ñu dagg sa loxo. Mm-hmm. waaw ku sàcc ñu dagg sa loxo. Mm-hmm. waaw ku jam ñu jaalo ñu natt lu toll na li nga ko jam ñu jam la. waaw ku njaalo ku njaalo. leneen ak ah. loolu mooy loolu mooy loi charia. loolu mooy loi islamique. waaw est-ce que nous sommes dans un ma fu ko yàlla wax ma wax la. bu ko yàlla waxee nee ma waaye waaw mais la laaj. waaw léegi ñëwal si la laaj. parce que da doon parce que da doon dama doon développé mais dama doon développé quoi waaw dama doon développé que est-ce que est-ce que aujourd'hui li xale yi li xale yi li ñu woo xale yi ndax loolu mooy wala li ñu woo population bi ndax loolu mooy solution bi dama ne nit ki hmm. balay woote oui da ngay am luñ la def dañ lay toog jooy te kenn dóoru ko yaa may dégg hmm. nit mënul jooy te kenn dóoru ko nit mënta am naqar te tegoo ko naqar hmm. léegi nit ki boo ko taxee tegee aw naqar suñ borom ci jëmmi boppam sax daf ne la boo gisee lu aw naqar loo xamante ni sii maanaam dafa naqar yàlla. Mhm. faj ko ci sa jëf. boo ko mënta faj ci sa jëf nag de am na yu neex yu naqari yàlla mm. boo ko mënta naqarlu. Mm. boo ko mënta boo ko mënta faj. Mm. naqarlu ko ci sa xol. yonent bi salaam mais loolu loolu wax waxu yàlla la foo gis nga li may wax nii ba moomoo ne ma yàlla moo ko wax wala yàlla wax xam na ne yàlla moo ko wax <laughs> mbir moo gis dafa am sabab sabab bi nag ki ko sabab moom lañu war a waxal sabab bii tege ci suuf. xam nga tey boo xëyee def li ngay def mais nit ki tey bu fekkonte ne dara am na fii. Mhm. mais kan la ñuy woo mu ñëw mu ñëw lijjanti ko maanaam tey bu fi xeex amoon wala dara kan la ñuy woo mu ñëw lijjanti ko. Mhm. police ñëw. bu fan la koy teg ci loi. Mhm. kon nag mbir mi nit ki li mu moom da koy jox. dégg boo ko joxul. nu mu ko mën a jële rek. war na ko mën a jëlee loolu war waral. loolu mooy résistance bi PAM sax dox constitution may ko nit ki. oui maanaam constitution nañu bañ a àgg ci ay résistance ah. parce que nit ki li moom boo ko joxee. oui jàmm naa ne résistance da ngay gis kuy fayu ju bor nit. àgg fayu la ngeen xeex yow mii xeex jàpp nga ne yaa nekk ci yoon. te fekk nekkoo ci yoon parce que dafa am lu leen réussir muy ay aw loi. nga war ko mën a porter plainte ngeen dem tribunal l lan mo andi xex bi dem nga nanga peut-être plusieurs fois tribunal atte wuñu leen. nga japp ne yow am nga loola naqari lii moo fa sës. d' accord loolu sësu fa. d' accord am na leneen lu fa seuss Fall mais mais mais Papa Moussa est-ce que tey tey tey li nga xam dañ ko ko def peut-être bu jappé ne. Euh, dañu dañu dañu dañu dañu violer la constitution. est-ce que ah, est-ce que si wàllu institution judiciaire amna am na fu mu dem joyto ko fa euh, wa parce que aussi bu fekkee état ko def. booy jooyte tam si bon mën nañ ne dem si dem si état tooñ la ngay ngay ngay ngay ngay ngay dem wala état est-ce que am na fu nga ko mën a booy jooy toog xëy na pour pour boo lëggee dootul am ndax maa ngi koy wax léegi li muy am quand mu ngi commencé bëri non euh, keroog lu mu bëri bëri ba léegi déggoo ñu wax ci na plainte waaw non déggoo ñu wax Sonko ñaata plainte la d'accord Sonko li mu dugal def a jaar am mm, na mm. mais mm. amul sens existe dans les textes. mais dans la réalité ça ne traduira rien du tout. c'est pas la war a dem bu fekkee par exemple non cour suprême. cour suprême parce que tout vient de de de préfectoral. donc euh, recours pour excès de pouvoir mais y a des parce que tout le monde sait que non madame li parce que li gëw arrêté préfectoral C'est ñu def non c'est le préfet. Ah, c'est le préfet C'est le préfet le préfet alors vous résident. le préfet c'est le policier en chef préfet euh, euh, moo décidé. tu te rappelles Moi là, tu te rappelles moo décidé nañ ko nañ kër gi nañ ko tëj. waaw. mais loolu ci ban texte la koy. waaw loolu la loolu la loolu la Pape Moussa nii parce que si si si si xam nga dans la foulée de l'affaire affaire euh, Sweet Beauté. oui tu te rappelles que préfet préfet bi moo waxoon gars yi gazé leen. Mhm. tu te rappelles donc comme ah, préfet bi moom la police administrative bi nga xamante ne moom mooy diriger. Mhm. police dans ces opérations là moo tax ma ne. à chaque fois gis nga police. Mhm. day changer statut te nit ñi duñ ko xam. loolu loolu tamit foog naa ne lu jar lu jar di leeral mais amul njëriñ ça n'a pas de sens Sonko combien de plainte la dugal combien de plainte plainte yooyu duñ mujj fenn euh, li li ñu doon wax moom aussi c'est léegi nii que ni Ousmane Sonko li mu wax démb hmm. dem tëddi nee na bu ko keneen waxoon kii geneen wax ni lu gën a garaaw dem tëddi Sonko laajagu fi bakkan laajagu fi bakkan si des chefs d'État non euh, loolu amul <laughs> moo ko wax moom yeneen yëpp moo ko wax moo ko wax ba kan loolu moom am na soo leen bëggee toutes les décisions incendiaires toutes les euh, propos tous les propos incendiaires yooyu moom yëpp ngay bokk rangé wala wala boog nga am hypocrisie wu génne bi expliqué ba la. waaw yow nga am hypocrisie wu di wax ñu bàyyi la nga wax ba pare te li nga wax dara teguwu ci mais kenn tontuwu ci sax bàyyi nañ la ak say say say wax te nga bàyyi ñoog suñuy wax nag. mais pourquoi yow toujours bu nit di wax ngeen ko li nga wax tegul te yow li nga wax moom moo tegu. waaw man man man man laa ci boppam. Hmm. bàyyi naa leen yéen ngeen wax yow yaa gedd sa parole non yow da nga mujj gedd. damaa geddoon sax waaw man gedd du ma bàyyi ma moo wax <laughs> damay wax Ousmane Sonko. oui dugal euh, dugal pour dem pour dem boole parce que itam fenn xam nga lan moo euh, xew dans cette affaire là. oui c'est-à-dire dictature buñ la ko waxee. Mm. mooy nit nga ñëw toog pour une raison bu kenn xamul nga barricade këram ne du génn loolu lañ wax tegul fenn ne famille wam doo génn loolu tegul fenn amul kenn ku ko mën a justifier ba génn si. ok l'État est faible très très très faible parce que faiblesse dëgg mooy di jéggi yoon pour di mën a nësaxal adversaire politique loolu la État di def nii lii du force lii faiblesse dëgg mu ngi nii.

Mhm. réew maa réew maa ngi yëngu de. bu réew maa ngi yëngu. Ziguinchor fii mu ah, ne ak Sédhiou ah, a ngi yëngu. Bignona di yëngu. waa Touba ya ngay yëngu. waa Guédiawaye ngay yëngu ba euh, day yëngu de. Hmm. te bu ñëggoo bu fi kenn taxaw naan Ousmane Sonko woote tarfatal ay ni c'est Macky Sall président de la République moom moo am responsabilité garantir la sécurité de tous les citoyens hmm. bépp loo xamante ne am na ci ci lompoñ moom lañ koy laaj parce que moom lañ dënk réew mi. mom la constitution bi teunk ne ko nga wara Nous doxalee mi ñuy jëlgati yépp nak donc bu fi dara xewé bu fi dara xewé bu ñu taxaw ay la yewen Ousmane Sonko woté won nangam ak Ousmane Sonko ministère yi muy diriger ci le ministère de la rue le ministère de la parole c'est un opposant day wax day dénoncer day taxaw ci parce que loolu moom mooy actuellement ci lan politique bi loolu nag boo ko ko lan moo ko fan nga amul amul foo ko mën di teg donc képp koo xamante ne mais le président Ablaye Wade fii lañ ku euh, baare otom dafa kat ji lépp jàll dañ fàtte loolu c'est-à-dire dañ jékki-jékki rek mel ni Ousmane Sonko benn phénomène la ci kaw asamaan si di wax lu musut a am. affaire ah, mos na ko def mbàkk su ma su ma ah. <laughs> ko doon def mais tey jii nii saa yi day ñëw def ay costume taxaw di expliquer ay gars loo xamante ne mel ni Ousmane Sonko benn domaine demoo la boo xamante ne benn benn benn moosu bu wàcc ci ay mbedd mi rek ñëw di imposer lu musut a am alors que yooyu yëpp daf fee am fii ci réew mi ñu koy accepter di ko bàyyi muy dem di défendre yooyu idée. mais xamul par quelle alchimie mais un député de l'Assemblée nationale un député de l'Assemblée nationale teg écharpe am ñu dóor ko lacrymogène ci tank, ñëpp di gis mu il n'a même pas honte de se mettre à caleçon pour wan lan lañ koy c'est Guy Marissagne, hein Guy Marius personne femme femme bi ci Tank bi lañ ko dóor am na benn jigéen bi ñu dóor ci tànk démb gis ngeen booy boobu euh, pour pour pour pour rien du tout il a fallu euh, failli perdre son son œil personne ne dit rien léegi taxaw naa ñu ay responsabilité partagée partagée entre qui et qui entre ñi woote entre ak ñi nekk ci mbedd bi woote bi c'est droit sëñ bi waaw mais waaw mais bu kon bu nit ñi gaañoo bu nit ñi gaañoo bu leen wax ni euh, pourquoi bu woote amee da war a gaañ nit ñi non pourquoi woote a a woote war a am pourquoi Pape Moussa woote war a am laa mënta comprendre yow ci droit yow ne am nga ay preuve ni waa ji dañ ko affaire la non foofu la commencé coow li bari bari yëpp loolu doomu la manifestation yi la képp la. Eh, eh, eh, non mais loolu ak li am la réalité mooy li liy dëgg. non mais dafa ndànk. li dëgg dëgg ngeen xam ko yow. li nga jàpp yow xam ngeen ko. li nga wax amul luñ koy xamee. li dëgg ah. da ngeen xam ko yéen da ngeen tëgg ci seen tànk. Ousmane Sonko mii warul woote daal. moo fi taxaw moo fi taxaw ne. moo waaw moo fi taxaw ne bal dafa am. waaw moo fi taxaw ne yow dañuy def bal daf ne yaa ñaata weer a ngi nii ñaata semaine a ngi nii. Ousmane Sonko mu ngi librement à ses à ses à ses occupations. Mhm. kenn defu ko résidence surveillée. Mhm. ñaata yoon nous ñu ngi manifestations ñu koy muy dem ci ay manifestations. Mhm. kon manifestation ñu interdire manifestation ñu génn ñu avons ñu daw ci ci c'est-à-dire xam nga lan la li fi avons hmm. le moment choisi tay démb ak suba lenn waralu ko procès bi jëm suba. Ousmane Sonko nag. mais Mouma daa non non. fu la neex dans la rue fu la ah, neex. non mais Mouma. dégg nga da analyse non non non Ousmane Sonko. amul gisuma lenn lu war a mën a tax gisuma dara lu war a mën a tax démb mu taxaw ne ndaw ñi ndax pare ngeen pour xeex su ngeen paree sama bakkan seen seen bakkan su ngeen parewul teel leen ma wax léegi ñu bàyyi ko fi mu sedd gisuma lenn lu war a mën a tax mu nekk l'armée prenne ses responsabilités dafa ndànk gisuma lenn gisuma fi benn tension wala lenn lu war a mën a tax Ousmane Sonko taxaw di wax ne l'armée doit prendre ses ses responsabilités tolluwuñu fa nga xamante ni armée bi dafay ñëw pour récupérer le pouvoir wala pour leneen ak leneen gis nga xam nga lan la mais kii on va vers un procès on va vers. non non yow li ngay wax li ngay wax. maa ngi leen di wax maa ngi leen di wax non non non non non. waaw wala dara non non déedéet. yow li ma bëgg. mais Fallou wax nga fi bay wax ay bilaay. bàyyi ko wax lim yow dama ne Fallou yow wax nga fi ba mu wax bokkul contexte bu bokkul bi li wax ba bàyyi ko wax. non non su ma woo nan lay wax dafa wax nga Fallou mënoo ko bu paree nga wax bu paree nga bu paree nga tontu Fallou super bu paree waaw bu paree nga tontu mais super super man maa ko jox maa ko jox man maa ko jox man maa ko jox naa la jox naa la Pape Moussa bàyyi li ma bëgg yow dama ne la coow li li muy bari bari bari coow li ñaari ñaari ñaari mbir rek ko sooxe le procès Ousmane Sonko Adji Sarr ak procès Ousmane Sonko Mame Niang parce que les les partisans de Ousmane Sonko ñoom ñoom ñoom Pape Moussa mii jàpp nañ ne Ousmane Sonko bu Vous ci procès bi bu ñu ko daanee bu ko daanee ci procès bi dafay dafay perdre mandat dafay perdre légitimité wala dafay dootul mënati dem. éligibilité ci dafay perdre éligibilité pour mën dans dem ci élection yi. looloo tax ñu bëgg def bloc autour de Ousmane Sonko pour que mu wara a dem ci élection yi par force moy moy li leader Yewwi Askan Wi doon wax né ñoom ñëpp fàtte nañ seen candidature nee nañu candidature Ousmane Sonko mënta ñàkk par force Ousmane Sonko dafa war a dem élection su demul élection élection dafay am dama ne loolu ay caaxaan képp la ci ah, loolu laa la wax ay caaxaan la lii ñu nekk nii ci li ñu woo xale yi nii pour ñuy xeex ay caaxaan képp la ah c'est ça sa analyse nga def fam ça yaa amoon problème dégg li mu wax je pense que moom on ne jouit pas de toutes ses facultés mentales Euh, déjà non il ne faut pas dire ça parce que non non non non non non quand même non il ne faut pas dire ça toi aussi non il ne faut pas dire ça toi aussi voilà ku nekk da nga am sa analyse di ko def bu dee bu dee bu dee jouir de ses facultés mentales man maa la ko gën a def Pam sax maa la gën a wér peleng yow xam nga loolu yow sax xam nga loolu yow xam nga maa la gën a mais mais Fam d'accord moom bàyyi ko bàyyi bi wax na dalaa déglu quand même ah, jox la temps voilà c'est le même Momo Cissé qui nous dit que ni Adji Sarr li mu yor moom ci preuve loolu mënu daan Sonko c' est le même moom aussi du keneen. moom moo fi wax récemment nii nii nii. procédure yi ñu engagé contre Ousmane benn mënu ko see teree doon candidat mën nañ vaar.

ñaari procès yi daf ko nar a tere dem da ko nar a tere dem élection te loolu. ku jàpp loolu de question yéen ñii. jaajëf man kay jàpp man jàpp ma loolu yéen jàpp. jàpp ma loolu ak waa kër Ousmane Sonko ak yéen jàpp ma loolu dafa neex bàyyi loolu laa wax. waaw waaw bàyyi bàyyi ñu wax. man loolu jàpp ma loolu loolu laa waxuma ne waxuma ne daf du dem élection léegi yow yaa xam nga ne Ousmane Sonko day bokk ñun xamuñu ko quoi moo tax ñun ñuy wax nii. non man maa la non ayiwa alors laa la ko wax. mais les vidéos sont là pour en mais non c'est ça l'objet du débat. mais mais par rapport à ce qu'il a dit. si si parce que léegi am impact ci li nga xamante ne moom la ñuy wax. parce que man euh, mm. nee na 2024 mm. Ousmane Sonko day doon candidat man loolu laa wax loolu laa gëm. et que vous voulez la ko de kon kon manifestation j'ai attendu Abbas Fall Abbas Fall le euh, département Dakar effectivement marché organisé. am na lien ak le procès il a dit sur RFM matin quand même. dafa am lien mënuñ koo bañ. abaxal ma ko oui oui man maa ne. oui ah une opposition. kii na manifeste pas taxaw ko mu suba procès public la ne ñëpp ñëw ànd ak man. ñu dem ci ba. mais moom moo tax ngeen ah, moom moo nag vraiment. mais loolu moom moo am. léegi bu doon public dañuy indi. waaw waaw non dama ne la. mënoo leen mënoo leen. maanaam am na mais non mais non mais non bàyyi mais non. bàyyi parce que sax mu dee ñu may bind xasaal ma koy ma koy toll. waaw Macky Sall bi ñu koy woo. mënoo leen mënoo leen mënoo leen Macky Sall bi ñu koy woo sûreté urbaine. muy ànd ak waa affaire yi muy ànd ak communication bi am entre ces manifestations d'hier. Aliou Macky Sall bi ñu koy woo da nga demoon. ak ak ak da ngaa doon moom du ñu. mënu leen ko dij ba loolu moom moo am procès dafay am Ousmane Sonko xam na procès de déformation. bi dafay am ne amul preuve bu mu procès ba dëgg Ousmane Sonko a merdé non mais si il a vendu le procès de Pastef il a joué avec le procès de Pastef qu'on se dise la vérité il pouvait éviter ces lii c'est procès de Pastef na ko ko éviter non non non non ça veut dire que tu n'as rien compris d'un procès. ce n'est pas à lui de sortir les preuves.

qui ça léegi kii mon wax parce que bon Ousmane il n'a pas la preuve de la diffamation mm. est-ce que c'est Ousmane Sonko de prouver l'existence de la diffamation Je lay pond boppam lay di kon c'est euh, Bambay qui a porté plainte contre Ousmane Sonko mm. moom prouver l'existence de la diffamation qui xamul la diffamation parce que vous avez ay euh, euh, rapport la véracité de ces dires ça veut dire qu'il ne sait pas c'est quoi la diffamation ça n'a rien à voir la diffamation avec ça diffamation Ousmane Sonko pour dégager les mots, si rapport ça n'a rien à voir la diffamation n'a rien à voir avec ça. diffamation dañu allégation ça vise à euh, porter atteinte à l'honneur de la personne. Mm. donc on discute de l'honneur dans la diffamation. mais pas de, du rapport. pas de l'existence du rapport pas de la véracité de ce que Ousmane Sonko a dit kon loolu a la de la part de Momo moo tax ma ko euh, parfois bipolarisation daf koy jàpp aji Momo Ousmane Sonko c'est est Adji de prouver la culpabilité de Sonko et non Sonko de de prouver son innocence. donc kon tey jii nii Ousmane Sonko bu ne damay dem procès gars effectivement parce que Macky Sall bañ ko convoqué dafa ànd ak ñooñam Karim Wade bañ ko convoqué dafa Khalifa Sall noonu. kon pourquoi ñu à leen wax bu leen wax des manifestations oh. amul lien ak procès bi. pas bañ. ngir ngir mais est-ce que est-ce que euh, ne manifestation yi. parce que suba suba sax ma ne la nga ma. avez la nga ngir yalla ci manifestation ngay wax. Hmm. Ousmane Sonko taxaw wax waxu procès bi. wax waxu jour ba dem. Hmm. kon kay euh, déjà Ousmane Sonko est dans un contexte bien précis c'est-à-dire procès bi bu ko génne ci contexte politique bi ci la bok manifestation yi bu ko génne ci contexte politique bi ci la bok kon ñoom ñëpp dañoo bokk ci benn contexte politique. Mmh. bu précis les contextes politiques boobu noonu Ousmane Sonko lo tax mu taxaw ci meeting am mu ne gars yi dem loolu yoon da koy tere. la justice est rendue au nom du peuple bi nga xam Ousmane Sonko mom la doon waxal. Mmh. bo yoy taxawon noonu mu naan leen nañ and ñooñu la justice est rendue à leur nom kon am nañ sañ sañu dem taxaw fi nga xamanté ne dañuy wax à leur nom. wa mais ñi ñëpp buñ la topé mom est-ce que justice dina mëna a def liggéeyam sax on s'en fout c'est-à-dire le problème bi mooy. salon mhm. bu feesee dinañ ko tëj. waaw mhm. ñiy taxaw ci biti taxaw ñu nangam mais fii nii ku ñu fi wo sa bok nga dem taxaw ji ko tribunal am dit ça c'est vrai Ousmane Sonko c'est un leader politique bu téyé benn projet politique bu ko neexee mo né Ousmane Sonko a joué avec le procès bu ko neexee am na sañ hmm. légui nak procès bi nga xamanté ne la jëm ak Mame Mbaye ak projet bi mu am dans le cadre de Pastef c'est deux choses opposées un projet peut être porté par Ousmane Sonko aujourd'hui demain par Birame Soulaï, après demain par la personne qui incarne le projet n'est pas n'a pas dit moi, euh, Idrissa une créature constitutionnelle à incarnation humaine variable un projet aussi c'est la même chose c'est une création statutaire d'un parti à incarnation humaine variable Ousmane Sonko dafa logique en tant qu'acteur politique incontestablement le leader de l'opposition le leader incontestable et incontesté les plots en termes de de de de de de résistance politique derrière Ousmane Sonko Nous ñëpp xam de fait Ousmane Sonko c'est le chef de l'opposition maintenant un chef de l'opposition pour le contexte politique il moom amul def un acte politique mais que sa raison d'être n'existe plus Ousmane Sonko incarne le ministère euh, de la rue le militaire de la contestation parce que dafa japonais la politique bi euh, président Macky Sall di dérouler ce n'est pas une politique pertinente et qu'il a une démarche meilleure mu ñëw tegal ko noonu la en 2019 teg projet wam ne jot na li ñëpp bokk ñëpp jot si nous liir ko di ci ay pàcc am solo mais ci loolu la nekk ñu ne ko déedéet loolu boo ci nekkee mom yow da ngay partager ak l'état bi nga xamanté né mom mo lay xañ nga exprimer lolu da koy partager la responsabilité des troubles publics c'est faux du deug parce que trouble public nee la état autorisé nit ñi wax seen xalaat nit ñi dañuy def li def à chaque fois qu'il y a problème c'est parce qu'il y a une interdiction et interdiction de droit constitutionnel alors ce noonu dafa amul ci démocratie les gens manifestent jusqu'à la Maison Blanche taxaw wax ak nit les gens manifestent jusqu'à l'Élysée taxaw wax ak mais aujourd'hui waxuma la palais de la République de euh, foofu dégg dañ day mais saa yi euh, Dakar Plateau bi yëpp dañuy wax ay arrêté Ousmane Ngom lolu mom lolu mom moom danger bi nga xamante ne mu ñuy guetté actuellement parce que Fallou waxuma la président Macky Sall élu par les Sénégalais waxuma la lolu de roi bour bour ci réew mi. Hmm. Daaw Demba dafa nek bour imposé dictature dañ ko destituer demal la révolution dañu ak ñom ko li Tengala ay sénégalais ñom ñoo taxaw exiger def la révolution Torodo ce n'est pas Macky Sall qui peut compromettre la liberté d'expression des sénégalais mënu ci dara defu juddou fekk ko fi day dee bàyyi ko fi suñu liberté d'expression suñu qualité démocratique fi lañ ko fekk fi lañ koy bay té dañuy légué à la postérité nouvelle génération dañ leen di cette démocratie képp ku d'accordul ak président de la république da ngay juk wax ko té kenn du la mën a Ousmane Sonko fofu la toll parce que tay jii nii amul il n'est pas question de défendre une personne

donc quel MDJ, le président Macky Sall qui doit comprendre l'enjeu bi nga xamante ne la am comme responsabilité muy léguer Sénégalais parce que moi, je ko wax kenn ko faire. forcé ko. Sénégalais 2019 je suis le second et dernier mandat Je yi may ko Moi, moom je taxaw bind Sénégal au cœur mais mon 2024 bu parle le Sénégal Macky Sall président de la République a introduit révision constitutionnelle en 2016 mais 2024 c'est pareil. Sénégal je ne qu'il pas dire il y a dire kilifa politique yaa ko journalistes journaliste gens ko sont dégg Momo ko président de la République que 2024 da Les gens d' sont léegi kuy ci élection. Hmm. ak gens constitution définir. ok kon kay yow

manifestation yi ñuy def di investir Macky Sall. tu n'as pas dit ça moom. yow yow yow yow nekkal nit. a nekk nit fii ngay gis waa APS di manifester di def ay meeting duñu demander autorisation boo gis ku leen interdire. gisoo ko interdire waa APR yow Pam Sa yow ça va pas. wax ma kan moo interdire waa APR. ci ok ok Pam Sa le 19 quoi Kaolack dañ koy def Ndiaffate. dégg nañu def nañ ko fii Thérèse fa ok Pam def nañ ko fii ci seen permanence def nañ ko yeneen dëkk def nañ ko Ziguinchor. Momo Cissé ngaawul il n'a pas levé le petit doigt contre ces ji. yaa ñeme yàlla yow yaa ñeme yàlla Pam Moussa tooguma fii. nga ne yaa ñeme yàlla. yow yaa

ma dama laa teel non non mais dëgg mën na Pape Moussa da nga doon àggale bu àggaleel ma posé ko question. non dafa ñeme yàlla li mu wax du dëgg. yooyu jàll li mu wax nii du dëgg ay li mu wax nii ne euh, bi ñu bi ñu wax defee seen manifestation waxuma ci benn yoon du dëgg parce que fii laa toog ma ne leen seen manifestation yi ñuy def amul bopp amul genn fii laa toog fee fàllu fàllu toog waxuma loolu non non nga delloo sa ko defee Sonko bàyyi ma wooy naa partage la responsabilité des troubles à l'ordre public nga taxaw li nga fi yekk Sonko léegi nii nga yekk leen ko waaw mais parce que amul trouble d'accord ok Momo waxal daal rek Momo. déglu ma déglu ma loolu doo ko yegg sax. Momo Momo Momo s'il vous plaît daal la ko Momo daal la dama bëgg mu leer hmm. dama bëgg li may wax nii mu leer nga déglu ko. Hmm. dama ne hmm. démb bi manifestation bi barki démb fii laa toog ma ne leen fii ba élection yi bi ñu ko waxee dama ko appuyer fii ba élection yi di jot amul benn manifestation bu ñu war a interdire muy manifestation muy marche. ci dynamique boobu laa nekk. kenn waru koo interdire. Ah, ci dynamique boobu laa nekk. laaj rek question la rek bu ngeen ma bàyyi ma yëgale. acca woyam. <laughs> non damay laaj. non bàyyi leen ma ma yëgale. kenn waru koo interdire may laaj. bul ma laaj bàyyi ma ma yëgale bul ma laaj. bul ma laaj bàyyi ma ma yëgale. ah non kobasuma la manifestation. jeexal foofu waxoon na léegi manifestation kenn warutu koo interdire fii ba élection yi di jot. Mhm. D'accord Dembou, si vous autorisé je saluer préfet Lim def encadrer les manifestations hmm. élection hmm. je suis vous êtes d'accord mais vous vous qu'un détail. manifestation amna. ñu n'a rien à voir avec le fait que Ousmane Sonko a dit que c'est pas vrai loolu lu am la lu vérifié la ñom ci seen xam nañ ko ñi nekk Ousmane Sonko xam nañ ne prétexte bi nous jël ak c'est parce que Ousmane Sonko dafa ji ñu ñu manifestation maintenant manifestation tay bi wala marche tay bi interdire je ne suis pas d'accord ci interdiction du tout d'accord mais pourquoi bu ko interdire mu mu am te pour bu ko bu ko bu ko duñ ko duñ ko sax wax merci wala jërëjëf. d' accord. mais man loolu mu ndogul d' accord mais mais non d' accord dama ne la yoon tamit moo ko may. Hmm. moo ko may ci anam ñaar ñaar ci ñaari anam. ci ñaari anam Pape Moussa s'il vous plaît. mu xool bàyyi naa la nga wax ba doyal la. loolu moo ko may mu jugé suivant deux conditions wala mu bañ a waxal na deux conditions yi su accepté wul nga jàpp beneen jour ak beneen itinéraire. d' accord mu mais jàmbi réew mi ñun ñëpp ko war a suuxal. ok bu leen bu leen dama ci kenn rek la nekkee. d' accord non jàmbi réew mi ci ñun ñëpp la war a la war a la war a. ci Ibrahima Diop la jàmbi réew mi ne. nekkul ci yow. <laughs> non man man moom xam naa ne léegi tey Pape Moussa buy ñëwati plateau bi du ma ñëw. déedéet non non non non parce que Pape Moussa da koy ruube aussi. non non parce que man bu fekkee ne nii lay demee moom dootuma ñëw la quotidienne quoi très sincèrement. non non yéen ñaar yéen ñaar dégg dëgg bon mais bon fal di en fait parce que euh, moom même si bu fekkee am na lien entre procès suba bi ak euh, manifestation alors vous savez ce qui s'est passé entre la justice et Khalifa Sall entre Karim Wade et la justice est-ce que aussi Ousmane Sonko en raison fait raison politique même essayer de former un blocus autour de lui pour peut-être je ne dirais pas empêcher la justice mais en tout cas pour donner un signal à cette justice là que moi je dois être un candidat dafa am utiliser la justice pour aujourd'hui m'empêcher d'être candidat. Euh, xam nga il faut que les choses nous utal leen mal nommer les choses participe au problème du monde empêcher la justice que nga veux dire. muy lapsus nga bëgg ko dire. parce que ce que je suis conscient. C'est ce que am aujourd'hui gis nga en mars 2021, oui non 22. 2022. deux mille euh, astaghfirullah pas fêter, mais bi commémorer les événements de mars 2021 ci la wax hmm. le procès Ousmane Sonko Adji Sarr dañ ko a ci pour Sénégal Ousmane Sonko Ousmane Sonko waxaat naa ko fii démb a une posture il xamante ne am yakar yaakaar bu muy suscité boo ne projet bu à tel point que lui interdire de participer à ces élections là mën nañ ko def au nom de loi mais que valent ces lois face aux aspirations profondes des Sénégalais il faut ñu ramener force du imposer réfléchir capable d'élévation nous porter mais pas far imposer mais donc Yalla. Yalla.

moo tax non non non non non yow charia loi la charia loi la. une loi déedéet loi bi man bi may wax damaa wax ci problème mu dëgg. waaw non man xam nga dama ne la bëgg la li nga wax non dama ne. nekkuñu ci république islam. waaw d'accord non man man waxu waaw dama ne man damay dama xam nga dafa am ñuy dégg. moo tax sànq bi may daaneel ma ne la ñun dañoo gëm yàlla ay jullit lañu. ba pare loolu laa ñun ñëpp gëmuñ yàlla ñun ñëpp gëmuñ yàlla quand on dit ñun on parle du Sénégal et des Sénégalais ñun ñëpp gëmuñ yàlla am na ñu gëmul yàlla ñun ñoo xam te ne gënoo leen nekk Sénégalais loolu loolu c'est-à-dire que il faut ngeen xam ni Euh, la la notion de nation il faut ngeen koy bàyyee xel ci ci ci ci li ñu boole alors li ma doon wax mooy dëgg bi gis nga gis nga li nga xamante ne dañ ko gëm il faut ñu taxaw am humilité nag teg ko ci penc bi ñu waxtaan ci Ousmane Sonko problème yi mu am avec la justice c'est-à-dire que ku ko bëgg nëbb ku bëgg wax complot la ku bëgg wax lu nekk la mais tant que dëkk bi mi ngi nekk yoon justice boobu dina suivre son cours dina doxal te dina arbitrer dina atte. lan lay doon xaw ma mais en tout cas man waxaan wax naa ko foog naa fii nii suñ ne ma woon que ni Ousmane Sonko du bokk parce que tel problème ou tel autre problème dinaa am le cœur ki señ parce que damay xam ni non seulement débat bi nga xamante ne dañ daf ñu war a yóbbu ci choisir kan lañuy ñuy jox suñuy destiné daf ci am solo am ci pàcc ay mille 2018 foog naa laa bind euh, la chance que qu'on a d'avoir Ousmane Sonko dans le landerneau politique ni mu transformer le débat xamaluma la mais nag loolu du tax. du cofeel du mbëggeel du mañee du mbagnel du lenen lo xamante da fay tax ñu gëm suñu bëtt ci li nga xamante ne dafa xew ci espace public bi espace public bi lu fi xew moy Ousmane Sonko tout puissant homme homme politique qu'il est maire de Ziguinchor autre chose autre chose autre chose n'en demeure pas moins qu'un simple citoyen justiciable et ce que je veux moi le pays que je veux moi, que la justice euh, que que Ousmane Sonko justice doxal li nga xamante mom moko bolé ko ay ay ay ay ay borom justiciable ci mom lool noonu warñ ko jaawale nan enjeu politique bi enjeu politique bi fi mu moy mooy enjeu procès beeg lool noonu jaxase la c'est ne pas comprendre ne pas savoir délier les différents événements yi nga xamante ci lañ jëm enjeu yi am enjeu judiciaire mooy enjeu bi ñu xam kat ñun suñ justice est-ce que mi ngi dox est-ce que Sagna a été Koumelni Ousmane Sonko est-ce que Sagna a été Koumelni, ancien premier ministre est-ce que Sagna a été ku kilifa Lolo, daf rassuré par rapport à notre justice. mais, l'État après après nga ñëw ak sa question. État dama dit dañ ciy wax ne Ablaye Wade defoon na Sangam, mm. Macky Sall défendu na mais kum neex nga ànd ak ñoom ci defoon loolu contre l'État contre les lois de cette république là mais li wóor mooy li ñu wax li wax li wax non non non c'est pas contre les hein. lois de la république ñoom li ñu defoon c'est pas illégal de Macky Sall dem ñu ko non c'est-à-dire que hein. c'est parade parade boobu ñu def te ce su fekkee da ngeen di xam loolu xam nga commencé mi commencé en 2005 2006 avec Idrissa Seck musul exister au Sénégal musul existait tëj nañ fi kilifa diine ba tàyyi Sénégal tëj nañ fi homme politique def nañ fi lu nekk musul exister bi Idrissa Seck ñëwee am son différent ak Ablaye Ablaye Wade ci lañ ko woo mu def sa parade jaar fu nekk dugg Sandaga jaar fu nekk ci lay wax ne jabetuma ta cancer xaw ma lan nangam nangam. pour si ma yóbbee na Ablaye Wade bi muy loolu amoon na Ablaye Wade musul def loolu. si mësul def loolu. Ablaye Wade day jóge këram dem tribunal. musul def parade laa la wax génn Idriss Seck dafa génn point wër ba mu neex ko jàdd dem Sandaga kàdd sooy dem. kon loolu kon loolu Idriss Seck rek moo ko fi defagul. non waxuma non non non non dama ne. kii dafa def. non non dama ne kenn ko fi defagul laa wax. non dama ne dama ne jug dem tribunal. Ah, ah. xam ne dama ne dama li may wax dama ne dama ne. non non jaxasewu ma dama ne li ma wax dafa leer dama ne hmm. parade demande ñi ñi gunge la pour dem tribunal. Hmm. mi ngi commencé ak Idrissa Seck laa la wax. non non non commencé wul ak Idrissa Seck am. Ablaye Wade def na ko. non fa kañ nga ko def. ma yéen kañ nga ko def yow wax ma kañ lañ convoqué wax ma ban problème buñ convoqué Ablaye koy dem sax jëli. Fallou mais ko jëlee ay militant dañuy. waaw non waxuma loo xam nga yaa ngi jaaxal sama wax man waxuma militant yu dem militant yi am nañ droit dem tribunal kii wax na ko su feesee ñu tëj waaw waxuma loolu je parle pas de ça. man je n'ai pas de problème avec les libertés. Hmm. xam lu ma mais par contre dëkk bii ma dëkk di Sénégal. Hmm. ma mën ci wax. Hmm. laa ne yow sa benn soo bëggee exercer liberté. ci liberté bi nga viser ci loo xamante ne yow rek la intéresser, yow rek la arranger. te daf ñuy gêner ñun dama koy dénoncer même su fekkente ne li ngay exercer liberté la liberté buy gêner la loolu laa la wax. donc su ñuy wax fii dañ fiy wax dañ fiy wax on parle d'élégance on parle de gentleman mais loolu mooy lan loolu mooy lan yow yaa am sa problème mais demal wuyu ku lay jàppale jàppale ñëw su fekkee day ñëw kuy ñaan ñaan kuy joxe xaalis joxe xaalis avocat buy bindu mu bindu. mais woote bi dafa am leneen loo xamante ne. woote bi da nga da nga Ousmane Sonko c'est un homme la. parce que da jàppale c'est illégal. lan moo war illégal. pas dit ça. j'ai pas dit ça par contre par contre dama ne li nek fi yëpp suñ ko ouyé mënul nek xajuñ ci tali xajuñ ci si rëgër góor gi xajul fenen lool noonu pour man moi préfet damay fexé ba duñ ko top on me dira da nga violé constitution da nga mais moi préfet je prends mes responsabilités je le fais après suñ ma dàqee suñ ma yobé, cour suprême yëpp j'assume j'assume et damay xam li tax ma def ko et eh, donc man loolu moy sama gis-gis ci ci ci bob yow yow y'a relancer en fait man relance parce que perception aussi la lay lay wax aujourd'hui perception sénégalais yu est ñu am dañu japp la justice bu fexé dañuy dem elle est utilisée pour pour pour pour adversaires est-ce que mën nga bañal peut-être nitu Ousmane Sonko oui c'est bien toujours de parler de la justice. mais mhm. justice la femme, police de femmes, gendarmerie de femmes euh, le corps euh, des préfets et gouverneurs de qui territorial autorités territoriales yooyu ñun ñëpp mm-hmm. état pour muy maintenant justice chaque jour qui va nous justice président mi procureur mm-hmm. président mi yam procureur dans su ce qui euh, lie yóbbu Ousmane Sonko euh, demain au palais de la justice lan mo ci am lo xamantene c'est politique politicien de la ko Le dossier politique la parce que dossier bu gestion réew mi la mais lan ci am de politique Mambay Mbaye Niang le non non déedéet ça c'est pas politique ça c'est la liberté ça c'est la liberté du plaignant mais c'est la liberté du plaignant mënuñu ko ko bañal mënoon nangu ni Ousmane Ousmane Sonko Ben na ñu koy du leen faale bëri na ñu def du koy faale lim Macky Sall ne daf koy complot lim euh, Moussa Fall ne da koy complot lim juge Samba Gueye ne da koy complot mooy choisir

mais finalement qu'est-ce qu'on doit retenir de ce que ce que tu dis parce que moi, je me perds. non ce que ce qu'on doit retenir moi, Ousmane Sonko en tant qu'homme politique man chaque jour je wax vous ko je je Ousmane Sonko amul n'y a pas ne def sur le plan politique Il n'y ne dama de koy sur parce que moi Parce may lim am suis le leader incontestable et incontesté beaucoup ci favori élection 2024. mais par contre. parce que les intérêts de Ousmane Sonko ne sont pas forcément les intérêts de l'État bi nga xamante ne lañ bokk. ñun ñu bokk mais ça c'est des intérêts partisans il faut ngeen mën délier loolu. intérêts partisans yooyu ah. non war na ko def non war na ko def ma xam na laay wax. limay wax limay wax xam nga pour lan la. Hmm. pour ñi déglu. Hmm. ñi may déglu. Hmm. di japp limay wax. ñu su fekkante ne li wax. doy na la non c'est pas un problème c'est pas un problème tu sais que loolu du problème ci man dama né Euh, lima ma bëgg mooy ñi may déglu. ñu mën def la part des choses et en toute responsabilité ku nekk def choix bi ngay def choix seetaan choix ànd ak Ousmane Sonko choix yuuxoo Ousmane Sonko kum neex nga def lu la neex c'est pas ça mon problème. jàpp naa ni lu waay def rek am na nag àtte am na sanction bu mënti doon muy ci justice muy ci après li xew ci dëkk bi loolu am problème moi également j'ai mon choix que dama koy def mais li may wax mooy Ousmane Sonko li def parti am la intéressé. projet am la intéressé ñi ko bëgg la intéressé c'est pas le Sénégal le dire c'est mentir aux Sénégalais. ok Sénégal xam nga li li nga xamante ne nag l'État dans ses rôles régaliens loolu lay def tamit man jàpp naa ni lu am la lu war a am la le préfet mesures yi muy jël pour man c'est des mesures am baax na préfet li muy def baax na si on retient non la conclusion xam nga xam euh, dama lay wax euh, dans un match de football mm. un attaquant hors jeu qui marque li mu def baax na bum bum bu mu xool naan arbitre bi ndax tili di gestu ndax def nañ li ñu pas nga ko dugal arbitre bi su ko tiiree li mu def baax na cest à il faut nga mën comprendre mbir yi li may wax dafa leer dafa simple. peut-être peut-être peut-être je suis désolé c'est ma façon de penser c'est ma façon de la responsabilité aussi. mais loolu laa bëgg a wax. peut-être que mu woo ma. wax ko mu bàyyi ma la. nu ma def non non non na ma bàyyi quoi. non non damaa bëgg mu bàyyi ma balaa émission bee jeex. émission bee jeex na sax Fallou Ndiaye Cess mu jeex. mu mën a tudd c'est trop philosophique ça. c'est le ah. monde suprasensible métaphysique. ku nekk am nga man li muy wax en tout cas li muy wax man comprendre naa ko quand même ah loo xamante ne Sonko war def mais préfet war na ko interdire loolu je comprends rien non préfet responsabilité mooy mu jël mesure yi nga xamante ne moom permettre loolu yëpp dox parce que préfet responsabilité l'ordre public Souba, Ousmane l'ordre public au jour au jour nga koy gérer. dafa am des dispositifs proactifs. loolu mooy l'essentiel. waaw loolu li doon wax moy ne wuy Ousmane Sonko n'a jamais refusé. su ma neexee bañ a sax mais il a le droit de ne pas répondre. su répondre am na fu muy toll procès bi am. non le slogan slogan c'était ne wuy ji. comme si c'est lui qui refusait quoi. non y avait un slogan qui disait bu mu ji tamit. Oh, voilà mais amna droit def ñaar ñëpp amna droit def ñaar ñëpp. lolu il faut ñu comprendre mais justice na dox. justice na dox légui nag lenen li leneen li luñ mënul bayyi xel mooy Ousmane Sonko li koy teree bokk ci élection yi suñu xagné Ousmane Sonko Ousmane Sonko suñu ko tejé Ousmane Sonko lañ tej jabaram lañ ko xagn ak ay njabootam comme ñi nek fofu yëpp mm. par contre empêcher à Ousmane Sonko de participer à des élections c'est c'est c'est-à-dire que c'est le choix de millions de Sénégalais wala de milliers de centaines de milliers de Sénégalais mom lañuy dem tour à la poubelle lolu dafa jar xalat dañ loolu booy waxtaan yi nga xamante ne moom la Barthélémy doon wax té dañ ko wara def mais la réponse politique aussi elle a des justifications

gis nga waaw si j'étais responsable de Pastef wala responsable Yewwi Askan Wi si j'étais responsable Yewwi Askan Wi ma xëy gis ci télé bi ñu bari taa de moo yow say wax non non day indi incohérent parce nga ne non non non déedéet da ngaa mas a wax fii ne maanaam Yewwi Askan seen ànd sincère xalifa yi dafay jaar ni cee jaar ne. waaw léegi li loolu la ñu fas yéene la loolu la ñu fas lii noonu lii la. su doon a. ma man maa nekk leaderu yeewi askan wi laa wax. ma xëy gis Ousmane Sonko ñu barricade këram. damay sol sama daal dem kër Ousmane Sonko. su doon moom maa nekk leaderu Pastef. ok damay sol sama dàll def ko sax sori na ci la formation politique de Ousmane Sonko. solidarité politique solidarité politique. non la formation la formation la formation politique non non non si ñan ngay waa Pastef bu combat politique bi tàngee. saa hmm. yi El Ndiaye ci plateau yi rek lay nekk tegle tànkam. Bassirou Diomaye Faye doo ko gis.

est-ce que vous avez des manifestations manifestation parce que est-ce que manifestation manifestations. Des salon ils sont plus actifs plateau de télévision ils sont plus ci ay bind texte réseaux sociaux nangam. mais quand il mais hein. vous euh, hmm. cest dire dire mais je ne vois pas ces gens-là au front Où euh, c'est mais voilà finalement. même même non non donc nga la Diomaye ñëw gars nañ ñew taxaw. front bi ci ni ko bëgg. Fallou waaw Fallou Fallou projet bo xamné bon entre deux deux deux personnes rek ah est-ce que itam. jarna di wote wote bo xamné bon deug la force publique la kenn ku ne am nga droit sétane mais amna na nu muy demee mën na indi ay attroupement parce que li pal di wax par exemple li nekkoon fii lépp xam nga ne tali wala di ak tribunal te buñ buñ ko gungé won aussi deug yi moy même buñ ko waxut après coow lay indi affrontement entre ñoom ak. gannaaw presque que sax dañuy dem ñu. àtte rek ñu wala ñu. dama ne nooy. non xoolal Birame Souleye moo dirigé manifestation Thiès tey ah. ah ok dama ne. non mooy suba na ñëw suba du Thiès Dakar la. cité kër góor gi tribunal na ñëw. dama ne dafa am loo xamante ne. Hmm. man di ko wax. sax maanaam opposition wala di ko wax Ousmane Sonko. Hmm. maanaam yow li nga bëgg ci Ousmane Sonko ngay wax mais waxu réalité. non waxuma la de. képp ku wax man la bëgg a waxal. non ah, waaye moom xar mi nga bàyyi bu. non non xam ne man ngay waxal parce que yow Pape Moussa di ngeen ko déglu tey de waaye de bu mu wax tey vraiment nag déedéet. wallaay non oh, man sama xalaat laay wax de. moom moom bu fi nekk. tudduma la tey kuy dafa bëri yéen ñaar mais yow boo ma attaqué dama yéen waa Pastef

man lan moom fa dugal. <laughs> waaw waaw damay laaj man lan moom fa dugal. waaw waaw yàgg ah, de lan moom fa dugal man. man lan moom dugal benn bokk man laa wax man mi ngay wax. yaaw njëkk a assumé da ngay ne ma lii moo la fa dugal. Oh. waaw yàgg sa yàggali la ah, ana yàlla assumé man xam naa ne benn nga bokk peut-être da ngaa nekk koo xamante ne maanaam militant APR kagule nga. Eh, non xoolal la xoolal xoolal ah, déglu ma rek may ma wax dëgg man moom wax dëgg fa yàlla man du ma nëbbu sama non man du ma nëbbu sama bokkul bokkul benn non man du ma nëbbu sama man su ma waree politique man j'ai appris man j'ai appris la politique xoolal man j'ai appris la politique ci ci keppaaru Cheikh Bamba Dièye waaw laa jàngee politique ah oui ah oui Bon, les images en 2011 Bini diri Cheikh Bamba Dièye ci tali hmm. loolu mu doon def ci lan. di diri Cheikh Bamba Dièye ci mbedd. déggoo dama ne la troisième mandat li tax du ma ci du ci du ci rey suma bopp damay bàyyi ba Macky Sall wax ne dafay dem wala du dem ma wax ko parce que mënuñu. en déglu mais ñi mu woon ñi mu woon ne Macky Sall def troisième mandat boo ko defee ñu dàq la def affaire ne mandat waxal. mais Macky Sall n'a pas droit à à un autre mandat. loolu c'est clair. loolu yaa ko assumé buñ la daaxee ma sama yoon nekk. waaw fi mu ne ñu ne gars yi gars yi affaire nag quoi. waaw Fall Ndiaye demal Fall Ndiaye dama ñu tëj s'il vous plaît s'il vous plaît temps bi jeex na tàkk wi s'il vous plaît waaw. dama ne procès jeex na oui dafa nekkul procès boo xamante ne. Hmm. buñ mën ne. maanaam am na lenn lu muy indil Sénégal lan la koy indil. ah mais un citoyen buñ tooñ. non un citoyen waaw dama ne. na am na droit dem boole waaw oui. léegi. Euh, man man man sàccoon sama bu sàccoon sama ginaar may dem di boole lu mu amal Sénégal. waaw dama fekkoon fekkoon bu fekkoon dañu ne ñaari citoyen yu bokk. yu yu yu séq. ñu war leen a àtte. du doon problème parce que première bi rek. première mm. woote bi ñu woote Ousmane Sonko teew rek. Mm. ci ngay xam ne affaire bi illégalité am na. ba pare kii génn na dem. kii génn dem ñu ne ko doo jaar fii ngay jaar jël ko yóbbu këram. toj vitre oto mu dem këram toog. toog ba da war a def conférence de presse. Mm. ne day génn defee ko ñu ne ko doo ko def mambay ñu bàyyi ko mu waaxu ba ca sees ba fa mu ko bëgg a defee mu def ko fa dellu këram kon loolu moo lay won ni lii ah hmm. maanaam kii dafa boole état ak maanaam parti maanaam état la yore ak parti Fallou da ngeen di jaxase lu bëri bëri bëri non jaxasuma dara sax day nuru leneen jaxasuma dara li ma lay wax nii ay fee la ñëpp teg ci seen i bët est-ce que loolu dafa legal maanaam bàyyi lii mu defi conférence de presse kii nga yanu ko yóbbu këram kan moo ko yenu police am na wala amul. waaw waaw mais am na ay nervi ko doon kaj waaw ah, kon jaaduwul ñu sécuriser ko. waaw léegi bañ ko sécuriser a def ko mën a. fan a defee fan la ko war a am ci. siège am la boobu mënta am ci Mame Mbaye Niang moom it ñu sécuriser ko ne doo dem wala kii moom moom amul danger daal kii am na non il faut ngeen xam ne Ousmane Sonko. non bul ne ma il faut ngeen xamante ne moo war a am laa wax mm. Macky a intérêt mm. Macky Sall Sonko mii. Mm. bañ koo jot. quand même oui. il a intérêt ku la wax loolu. ak mais il est citoyen ah, Sénégal moo fi. ah Macky a intérêt Macky Sall doit préserver Ousmane Sonko intérêt à ce dara bañ. dara ko yi. ndax lan ndax lan ndax lan non mais. parce que benn. gars yi wax nañ ko fii léegi. ci état am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne si ay si ay si ay responsable peut-être. waa euh, <laughs> léegi léegi man man man man mii waaw. yow nervi ñu sonal koog yu ni mel yooyu. Euh, non waxuma loolu de man moomoo laay laaj. moomoo man mii sénégalais ma war a wate deux mille vingt quatre. Hmm. man kon man Macky Sall amul maanaam obligation daal man sécuriser ma. bokkul eh, bokkule ah, na Sonko bokkule ah. bokk bokk dara jotoon communauté internationale bépp jug. bokkul. <laughs> Macky Sall du Sonko Macky Sall mi ngi koy. sécuriser donc am na citoyen yoo xamante ne suñu amee problème Macky Sall dafa leen di jàppale. président moo nekkoon président l'union l'union africaine par exemple. Eh. comprendre nga. ko ne. <laughs> <laughs> man xaw ma li ma bëgg wax ne doo doo waxal ñu xam. waaye day gedd par fan la bëgg wax. <laughs> man kay léegi ay laa moom. kenn du a tàkk li mu la mën a tëj waaw dama ne justice bi ñu koy teg ci am réew. foofu laay daaneel mm. justice bi ñu koy teg ci am réew. Mm. damay defe ne jàmmi réew moom moo tax. dëgg la waaye du lor. dëgg la préfet mm. bu ñu koy teg ci am réew. la laisse ma Diop tranquille or mu or mu mu orienté. citoyen yi nga xamante ne gox bañ ko dëkk. man damay jàpp ne moo ko tax a jóg. waaye warul leen a indil. maanaam ay ay ay ay ay difficulté man loolu laa jàpp ab maire bu ñu koy teg ci dëkk damay jàpp ne mu xool li nga xamante ne askan wi moom lañ manqué mu mu mu defal leen ko ak député ak ñu demee noonu man loolu laa jàpp ci am réew waaye bu ñu demee tey ba nga xamante ne tey dañu ne maanaam mbirum yoon mii moo war a indi ay jafe-jafe ci réew mi man damay jàpp ne loolu nekkatul aw yoon <coughs> wax parce que. Hmm. Macky Sall mako waxal de président de la république moy hmm. garant. de constitution moné ne. Hmm. mi ci dafa am bu mi nar nar uh-huh. nar uh-huh. président euh, euh, ministère de de la justice le la procureur le procureur Woma, ma. xol su booba ma ma ma. ma teg sama coj waaw. ma booba day fekk si procureur la yem ah mais fi ne fii moom. non non procureur. dama ne dama ne mm. am réew lañ yore. procureur mm. wala mm. doom. wala mbokk non non non dafa ne dossier bi dépassé na nii dépassé na am loo xamante ni. yow jàpp ne fi réew mi toll peut-être. dañu war a nekk dossier yooyu si na wax dëgg yàlla. mën nañ ko juger. yaa may dégg te du am problème. loolu amul ah Pape Moussa bi juriste la xam na li may wax. du juriste dara. <laughs> mën na nekk waaw d'accord man moom laa ko jàppee. xam nga mën na nekk ñi ñi Ismaïla Madior Fall encadré yëpp mu jàngal ne yëpp ay ay kii lañ dañuy tëlli tëlli xamuñ fu ñuy taxaw moom mi ci la bokk. <laughs> Ismaïla Madior moo ko jàngal Abdi Naar ko jàngal ko. ah mais Abdi Naar Ndiaye mu ngi fii tey Ismaïla Madior Fall moo ko jàngal. xam nga loolu <laughs> xam nga tey réew mi réew mi. waaw c'est vrai waaw pour ma koy wax moo tax Fall ma wax ne. Hmm. Euh, bu ñuy wax naan jàmm. Hmm. kii la mu wax. Hmm. kee la mu def. kii lim kii lim def. Hmm. yoon mooy. mooy li mu def. kii li mu wax. maanaam tey ma taxaw naan réew mi daa war a am jàmm. Euh, man foofu laa ci man a wax naa ko sànq. mais réew mi am jàmm moom. Macky Sall rek moo mën a indi réew mi jàmm. nan la war a def pour jàmm. non nan xam na ko. fal loolu nag parce que justice moo yor justice moo yor centre. ah non yor justice jàmmu Sénégal na ci yoon jàmmu Sénégal ku nekk am na ci yoon. léegi léegi waxuma loolu dindi ko ci dindi Macky Sall ci justice. non Macky Sall non juge d'instruction yooyu. non waxuma loolu dindi ko ci moom neen Macky Sall ci justice bi kon. ah yaakaaruma ne moo moo leen digal ñuy def de loolu. L'anti les les les juges du non ah, yoru leen. yoru peut-être procureur la yem ah. institution ah, mais mais non procureur mettre de l'opportunité de poursuivre. bon mais mais mais mais Il a dossier toll. est procureur non dossier mooy léegi sénégalais bi ci jëm boppam. Mhm. booy wax ak moom. fii naxoo ko jàpp na ne yow maanaam li nga koy wax. amul njëriñ. dëgg bu wër pegg nga wax. <laughs> billaahi yaa ngi doog a li ñuy wax ni. ci institution yi ñuy wax ni. Mm. ñun ñëpp kenn ku ci ne ku wéet ak sa bopp xam nga ne. Mm. am fi benn institution. Mm. boo xamante ni si. tey suba la fi Macky Sall bëgg suba mënta am. ñun ñëpp. bon ça c'est un autre débat boo xam ne indépendance de la justice lay doon. bon sama gars yi ah tey débat bi kii woon na moom ak Pape Moussa xaw bon non non man moom Pape Moussa moom xam naa ne buy buy ñëwee nii dama koy teel a wax quoi may préparé wu. <laughs> chaque jour mu ne ko booy ñëw del naan ndox mu sedd des fois day ñëw tàng jër waaw Aram ñu ngi lay sant di la gërëm di sant ñi nga xam ne ñoo ñu doon seetaan di leen jox dig daje incha allah ah, demain si même heure ak seen euh, émission la quotidienne jërë ngeen jëf suñu télé bi la indi ci yeen ngir yeen ngeen mën cee gis seen bopp lii di innovation bés musta ta gis ci réewum Sénégal CNM mooy télévision bi nga xam ne 100 digital la village CNM bi dafay nekk bërëb boo xam ne dañ fay weccoo xalaat di fa waxtaan di fa saytoon tekk yéen suñu ay téléspectateurs ci CNM bisu koor gi yépp dañuy organiser débat ci wàllu diine waaye it ay débat ci wàllu société ku mu neex mën na cee bokk bu waxtu ndogu jotee nag ci suñu village CNM bi ñu jëbbal leen ay ndogu yu neex te bakkane waaw ndax weeru koor weeru yërmande la weeru partage la weeru bokk la moo tax CNN bëgg bokk lépp lu mu am ak ay téléspectateur am ci diwaanu Ndakaaru bu ñu nogoo ba nuppi nag lépp dina ànd ak bànneex ñu wéy di ci boole comédien yi indi ay waxtaan yu wuute ay panel ay nit yi yéene ak it ay débat yoo xam ne mën ngeen cee bokk diirub weeru koor gi yëpp CNN dina nekk tele bi leen di gunge ba wan leen ne télé mën nan koo defee neneen CNN mooy challenge du média